nunto adol be nyaadile parce que niyamoy ko aɗo nen cosano ka haɗa maddigole signifie ite mu jumale ite bota jumalle bala wol fanal bota jumalle fanal bala ñina lan dekkil sa ada asa cosan ake ko nun ñami num nan ame demba babu ko ni dinnigo jibe e ko akalon ko yemmen fo xama sa ada asa cosan motax gambian tv ak ibu ak babu ñu tok ñu ne ñu fokk yuddu nasun asasi asun cosan ɗum to alfal kela dimbayali ke kuluno ñaaɗile ke kulu ñaaɗile fof ɓuuterolon ban fo ɗum e ka domoro le dila ban foy ka mun fel le dila ñin programme le biwo be sene andi la kon kene ku nega bo buke xam sa adresse to tan fu nga baye ko samma fu nga baye ko nun to alfalu ila sunkurundi wala ke pare nyaadi le ila dum fengol fanal be nyaadi le ko mun dum fen sifal le fanal dum ñin programme le fanal be o yitandi la nena ran ko wati sa ande andi wodan nga feggo fofam tel dinde mankaje ke balka julo siti yiro balay ka fo finja julo kay ko be siring ibe kuma jijala kumol bitay do tari kol fula dindingol ye lu doon am démba lu tax amatul tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ak kenn ñaameng aada ak cosaan ak kenn ñaameng topp lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom-ñaari waxtu fan la mu amee si Gambian Talents TV Ibou la ak Babou seeni jogob koddo oh, njaay ma jogob koddu yaay ja baax na seeni jogob koddo njaay ma jogob koddu yaay ja baax na seeni jogob koddo njaay ma jogob koddu alaaji Moustapha Njaay alaaji Ismaila Njaay baayam alaaji maam buubu Njaay baayam tubaar fa kàlla macha allah Njaay maamam biram wula jaagne ak fatma wula jaagne len fuloor wula jaagne yaaya ndaw mu demba sen tubar fa ma sha allah aji bàjjen fay nak moy yaaya mbas ndene jigen ak jogoy jigen ma masamba ndene jigen wali buri fatma serigne mi ci kunti seni mi ci bani ñoko bayande mi ci gi basin demba sanu ji sigi gi dañ ne yaay du ben billahi mbas ndene jigen yaay du seni jogo ko do njaay jogo ko do yaay jabar na seeni jogob kodo njay ma jogob kodo yaay jabar na seeni jogob kodo njay ma jogob kodo yaay jabar na seeni jogob kodo yi seeni chukar mbayi yaay jabar na seeni jogob kodo njay ma jogob kodo yaay jabar na ligay ndey dom seeni jogob kodo njaay ba jogo koodu Gambia nuyuwaat leen rek comme ni ma koy waxee rek euh, suñu dëkk nag dañuy faral euh, di wax euh, ndax diw def na fi dara ndax diw nii la ko defee ndax ne la ko defee ku nekk nag ak sa story ku nekk ak ni nga gisee li nga xam ne mooy sa ndaw ñaar ñu bari nag dañuy faral di jël li nga xam ne nag mooy démba toonaat ko defar ko ba mu rafet bu ko defee nag wax naa leen saa su ak sa démba ku nekk sa démba nu ñëwee ku nekk naka la sa démba demee ah, sa démba ah, su ko defee rek ñu def si ay waxtaan ah, bu ama am solo ku nekk nag wax naa leen ko ak sa jaar-jaar am na ki nga xam ne nag yàgg nañ di dégg turam waaye balaa ñuy laata start rek di leen ne Samba Birame Dumba nag jàng leen moo leen a fii di Fatou Samba Tafa Ndiaye nooy nuyoo man xam loolu Demba Sène yaay Ndaw Demba seen Birame Boula Ndiaye ak sa la diggéen Boula Ndiaye Oh, iya, cipedongang dene jaay yaa ma jaar jaayeen naka lañ leen di tagee ñun suñ jaayeen ñun sénégal lañ jógee suñ maam ki nga xam ne moo jur suñ maam moom dafa ñëw cipidong lañ ko daan wooyee cipidong moom daf daan rabakat la woon rabakat la woon jógee sénégal jolof yàgga daan dooleem daan dooleem moo tax mu ñëw fii bi mu ñëwee fii nii am na gaal goo xam ne am bu ñu oyee kukka kukka xam nga luy kukka. amuloo ko de kukka kukka mooy li njee ràbbee nga li njee sànni di ko ràbbee nii. Mm-hmm. mooy kukka. soo suñ ko laajaan moom ci pidong na yow yenn yi ñuy def yow doo koy def moom lu ko kukka mayul rek leen di ko ko may. Mm-hmm. mooy daan dooleem. di ràbba am gaal nag tuddee ko kukka. soo fa la jógee nag amoon nag am njaboot xam nga comme ñu bari di daan def am njaboot Sénégal am ñu fa des. ba pare am ñëw fii nii am fi njaboot tamit. Uh-huh. moo tax rek Gambien boo gis rek am na am na uh-huh. waaw waaye nag suñ cosaan dëgg dëgg dëgg la. Uh-huh. waaw. allah loolu neex naa dégg ma bëgg a xam rek kan mooy Tafa yaay aji bàjjen fay la tudda aji bàjjen fay su kay um, yaayam uh, judd nekkoon uh, A Hegan. 61 uh, ay càmmeñam Dudu Matar Njaay la yéen da ngeen nekk xale topp xëy ñu xala mag dañ xam kanay kan. Mm-hmm. waaw um, uh, ba pare suma papa um, uh, suma pa Ismaila Njaay la tuddoon yal na ko yàlla yërëm. moom it amoon am na ay jigéen fii nii um, ñoo xam ne tamit xam nga génération boobu ñi si ëpp ñëpp dem nañ. Mm-hmm. waaye ñii daal ñooy sumay kilifa. waaw eh, ah, Ismaïla Ndiaye mooy suma papa ba pare eh, bàjjen fay di suma yaay. Mhm. dégg ñu tuuti rek ba si sa ay maamati maam ñan ne sa ay maam. waaw suma ma maamati maam yi xam comme li ma la wax rek suma yaay sukay ko jur sukay ndetee ko waaye tam xam nga suma suma dafa am ay ay càmmeñ ak ay jigéen ñoo xam ne tamit ay doomi baayam lañ mhm. mooy si sàmbeen yi sàmba yooyu bokk ñooy yow sàmba sa sàmbeen mhm. am nañ sàmba Malick am sàmba jaaja da nga dégg léegi-léegi ñu daan takka yéen boo ko yéen seen sàmba yi ñooñu suma ay ay ah, yaay lañ ah, ay jigéeni yaay ah, comme ñoom docteur Ibrahima Samba moo suma yaay moo toppa suma suma yaay nampa jox waaw waaw muslim high school waaw waaw Ibrahima Samba waaw mu waaw so si suma wàlli papa comme li ma wax ñoom da bariwuñ parce que dañ ñëw ñoom bariwuñ wuñ ah, ma fa benn benn benn benn eh, benn benn eh, càmmeñ la amoon wala du càmmeñ waaye benn rakk la amoon ku góor eh, comme na ñoo bokk ndey baay am na ñu bokkaloon baay tamit you know su ma ñoom bàjjen ngaajo ñooñu ñu xam nga xëy gaan fi lañ dëkkoon angul si bàjjen bintu moom dobsil la dëkkoon fayen fayen tam ay mbokk lañ fa bàjjul dafa lëj Euh, Banjul dafa lëj euh, sakatuma ñun si li nga xam ne moom lañ askanoo mhm. liñ askanoo damay wax toujours ne euh, ñun benn plot lañ ploti wëñ lañ mhm. plot bi wëñ xam nga plot bi wëñ ñaari cer rek laa am waaye nag wëñ yee lëj mhm. moo tax suñ xewlee foo dem suñu naan suma bàjjee nag suma nijaay ak léegi-léeg nga gis sa mbokk boo xam ne doo xam sax ni ngeen bokkee waaye na fekk mbokk gu mbokk gu jegeñaale lay doon waaye nag ñun dafa dafa dafa um, li am rek mooy dañ dañ dañ xam naka la mbokk gi ñëwee parce que duñ koy nettali bu baax ñu bari tam jege ñu ñoon mag mag ñi ñu bari tamit eh, day xalaat tubaabe léegi <laughs> waaw day xalaat tubaabe léegi léegi nga bañ li nga doon oo ragal li nga doon waaw waaw waaw xam nga loolu Youssou Ndour woy na ko mm-hmm. waaw waaye euh, maag loolu moo xew euh, mbokk gi moom euh, yóbbee na la. macha allah Tafa Ndiaye ñu dugg si li nga xam ne mooy sa taami ndaw yaa maanaam fan nga starté sa school ñu dem si primary dem si kaw. naa ngi starté Winley school Winley gannaaw si ñu ko daan tuddee Saa Dawda mu nekkoon fële boori PWD xam naa la di nga xam PWD. afdaay foofu boori foofu la Winley nekkoon ndax man da nga mën Winley am Malfa. Mm-hmm. Um, uh, so gannaaw si ñu ñu boole ñaar ya, ñu gitu, tuddee leen Sir Dawda fa starté in 1960 for 1963 la dugg school bi um, uh, ma school ma nekk fa three years gannaaw si ma dem ma dem uh, Methodist prep Methodist prep fa laa fa laa suma common entrance jógee fa dem High School Euh, gannaaw si loolu si wàlli jànge euh, daara euh, takin Ken Street Ken Street xaw ma léegi naka lañ ko tuddee parce que tur yi tur yi dañ leen ceeñ waaye suñ jamono Ken Street daara ja fa nekkoon sëriñ ba fa nekkoon mu ngi sëriñ Modou Mbaye muy gaañ bu yàggul nag moom macha allah yàlla may na ko fan waaw koo xam ne koo xam ne yaa ngi woon Banjul daal time boobu leen nekk afdaay Euh, jaar nga si loxoom waaw falaa demee daara falaa jàngee daara euh, ba 1967 bi suma papa amee kër euh, ñu persévérance ñu toxu fa ñu dem daara arab su ñu commencé daara arab lañ mooy mooy Mohammedan Mohammedan school mm-hmm. ñun fiw ñi nga xam ne si ñu ko start si lañ bokka mm-hmm. Ah, soo falaa defee suma suma suma jàngi ah, li islam ah, ñu ko muslim high school. macha allah loolu neex naa dégg balaa ñuy dem rek si biir di xuus ma bëgg rek xam si li ma jot a dégg sa yaay daf daan jaay li nga xam ne mooy mbuuru li si ay bunti loolu amoon na ndax nga yóbbu ñu through those waaw waaw su ma su ma yaay comme comme ay ay eh, jigéen ñu bari time boobu rek ak Banjul. Hmm. dañ mën a daan seen doole. jigéen ñi yàgg nañu daan seen doole benn tey ñoo ñoome kër yi. Hmm. Eh, dañ dañ ñu daan bàyyi seen jëkkër yi rek yaakaar leen. Hmm. Eh, soo ku si nekk rek am na loo yëngatu loo xam ne rek di nga dimbale si dépense gi ak kër gi ni ñu ko doxalee. ak jamono jooju leen ñi am am bi bari wutoon. Ehm, eh, so suma yaay daf daan jaay buróoli ba waaye suma yaay moom daan kati dooleem la woon moom yu bari la daan def daan jaay ayis tamit bi jamee fridge da jël poti tamaate yu ndaw yi sax def si defar ko defar ko ayis jël kolari nga yow si banta xale di ko jënd si am na waaw am na am na xam nga ñu ne doom ju góor ndeyam waaw loolu olof def koo wax te man maay taaw bu góor waaw man maay taaw bu góor ñaar la am naa rakk bu góor Cheikh Tidiane moom mooy suñ caat waaye euh, man ma euh, may taaw bu góor euh, ma amoon ñetti mag ñu jigéen ñoo xam ne ñoo ma jiitu xam nga soo su ko defee ñuy maa yar yaree ma yareen bi xalaat doon yarini jigéen waaye nag yarini discipline la nga xam ne yu bari yoo xam ne tey góor yi duñ ko nangu ñun dañu ko daan yaree dañ ñoo yaree war a fobeere tey boobu da ngaa roon pour dugal ko si fridge bi doy rus déedéet doo ko rus ruskolaan jamono yooyu. Mm-hmm. waaw léegi-léegi si ndaw nag xam nga am na ñoo xam ne ñooñu famille yoo xam ne ñoom duñ ko def. Mm-hmm. parce que jamono boo gis rek am na ñoo xam ne ni ñoo yaree du nekk benn. Mm-hmm. benn tey jii sax am na ñoo xam ne seen doom yi duñ la yaree noonu su ko defee yow soo nekkee nag xale bu góor léegi-léegi tam nga jéem koo bañ di ko jéem a daw. yow da waaw léegi léegi nga jëm koo daw ah ndongo yàlla moom si ndongo yàlla bokka léegi tey nga def yoo xam ne sa sa sa sa kilifa yi dañ la ko bëgg a def loo nga bañ ko. léegi léeg mu am. waaye itam foog naa su ma bëggee xelaataat si gannaaw euh, dëgëru woon bopp dëgër boppa tamit emoon naa ci loxo euh, waaye nag terewul nag léegi-léegi nga def yoo xam ne nañ la ko dóoree dóor yu métti sax hmm. o oh, time bo dañ daan euh, la daan ooyee dégg naa sa yaay dafa bëggoon Tafa Njaay waaw la daan ooyee xam nga si si cosaani Banjul ji mag ñu mag ñi bu njëkk suñ la bugg suñ la wonee dat loof dat bugg a bugg si yow baa lañ laa ooyee hmm. daña naan baa déggati la waaw loolu la la ooyee mag ñi bu njëkk ba hmm. dañ la naan baa yow baa baa yow day kaay dafa mali suñu su déggee baa dafa dañ laa oo ngir mugeel dañ laa woo ngir neexal la hmm. dañu naan waaye baa baa suñu xamul nga waaye baa waaw waaye man man suñ kër tigi Modou Moustapha lañ maa ooyee. Mm-hmm. moo tax ma ooyee Modou Moustapha rek xam naa ne kii ku ma jegeñ la. Mm-hmm. benn tey am nañu ko de ooyee ku ma la. Mm-hmm. Ah, waaye su ma yaay dégg am nañu ko daan tooñ ko dafa ma bëgg be su ma oo dafa la naan su ma Modou Moustapha. waaw loolu nag jegeñaale diggante ndey ak doom la rek. waaw ah, ngir jegeñaale su ma yaay li si ëppa bi ma demee ba doon maag ba doon muskalaf parce que su ma yaay yaa ta riir Eh, waaye dama ko jege ñoon ba booba itam dama daan toog ba ay 12 o'clock si bëccëg ak time boobu ni ma busy parce que eh, dama busy woon torop mm-hmm. waaye dama faa teg suma liggéey bi suma office Kanifing la nekkoon si cemetery bi foofu mm-hmm. dawal dem Banjul dem toog waxtaan suma yaay waaye dafa jaay loolu ñu bari dinañ ko weddi mm. parce que dinañ gis tey eh, doom toog rek éega si kaw fàtte sa kër ba waaw loolu nag la loolu réer la loolu eh. si réer la bokka gis nga eh, faatu cosaan lu am lu am solo la ci nit ak foo dem si àddina si nag hmm. soo nit ku nekk da nga baax ngay xam si cosaan xam nga am na ñoo xam ne seen doom yi ñemeñu leen hmm. waaye su ma bi spécial bi nga xam ne mu ngi koo magee hmm. su ma du dem di ko waxtaan suma affaire yi àddina suma business yi maa def daf maa naan Modou Moustapha i dëkk bi day léegi naxar na ma ko lu xewati noonu yaa mu ne ma mu ne ma kanja kanja daan jar li mu ne ko loolu cher na di su ko defee ma waxtaane waxtaani marché bi parce que dama expliqué ba si level boobu leen waaye su demee naan su ma yaay ak naan ko restaurant bi leeg euh, moto bu mel ne leeg su ma yaay ko mhm. waaye liñong beeg ah, waa kañ la fii liñongi soose aga fii eh. ah, xam nga kañ la ah, bisaab nga naan xaay tuñ ko daan def ak eh, xëy nga daan amee li fii ko ba ñuy koo jaayee lii so loolu important la gis nga sooy waxaat nit da nga da nga baax na nga wàccee sa bopp si moom fi ngeen toll. Mm-hmm. te loolu dafa scientifique. Mm-hmm. gis nga sooy dugg plane torop. Mm-hmm. da nga soo bàyyee xel. gis nga air hostess yi. suñ dee ak yow duñ taxaw. air hostess yi. suñ dee wax ak yow si plane duñ dee taxaw dañ dee sukka. dégg nga yaa ngi toog. su ko seen bët em. ñu soo bëggee xalel ñeme la. day day day sukka sooy wax a moom daf laa jàppee morom loolu is very scientific loolu ngeen jàngee ko ci waaye su fekkee ne yaa ngi wax xale nga tiim ko dafa naan ki jaayat bi mooy kan waaw soo tam li ñi dañ bàyyi loolu xel ne su ma ñëw di wax yow Fat Samba yaa nga léegi damay ma la sa méko nga ma méko bu ma mm-hmm. damaa waxtaan yow li nga xam ne dégg nga ko mm-hmm. waaye su ma na la Fatou Samba ak suma kër gi maa defin fi léegi suma investment yel dañoo réer. dañoo réer waaw nit ñi nañ bàyyi loolu xel. Mm-hmm. ne nit koy waxtaanatil rek especially su fekkee ne ëppante dafa am. Mm-hmm. jimal wàcce sa boppa macha allah su wàccee sa boppa rek mm-hmm. mu ñeme la su ko defee dafa fekk ne time boobu leen daf laa jàppale ak kii kat suma morom la macha allah waaw bu ko defee rek ma laajte la euh, comme que yow sa yaay noonu la laa ooyee yow it naka nga ko daan ooyee man yaa yaa booy. yaa booy waaw. macha allah yaa booy ni ko daan wooyee. <laughs> Ah, ñu dugal rek ah, si li nga xam ne mooy ah, jamono ndaw yaa taf ma bugg a dem si li nga xam ne moo nekk bi nga nekkee ndaw si gëstu bu ndaw bu ma def dégg naa ne nag daan def carpentry loolu am na ndax amut. waaw lu am la amin soo ne ndaw tam dafa des si fan nga classify ndaw. Hmm. carpentry wax naa ko place yu bare bare bare bare bare maa ngi ko commencé bu ma nekkee high school. high school. xam nga ñun biñ nekkee high school. waaw waaw jaaxal. Hmm. yaa ngi nekk high school bu mel ni Gambia high school. Hmm. and in those days Gambia high school nekk na one of the best schools. Hmm. si biir Gambia. ngay dem Gambia high school di war a def carpentry. waaw xam nga xam nga xam nga time boobu leen curriculum bi ni mel te maa ngi wax si lii nii maa ngi ñaax nguur gi nañ fonka liggéey technical liggéey ouvrier mooy yóbbu dëkk kanam. dañ ko manquele léegi. Euh, te liggéey ouvrier dañ see tekkee su fekkee ne man tekki naa. ouvrier laa man bon donc ouvrier jar naa fonka euh, ma Gambia high school soo fa nekkaan da nga daan def li a takkin subject nga daan def fukki subject ak ak ak ñetta moom nga daan def da ngaa jël yëpp nga boole ko diggante form one ba form three ñëpp a koo def den su ko defee jigéen ñi dañoo def domestic science domestic science mooy affaire togga affaire ñaw ak yooyu boobu ñëpp a koo def mm-hmm. mooy home science góor ñi ñëppay def metal work ñëppay def work su ñëwee ba nga passé nag form three ba form four nga war a choose sa subject si nga war ko def seven dañoo seet si nga gën a aay ñu pousse la si loolu. Mm-hmm. man nag man am na bi ma jël loolu mënoon naa def chemistry ma jël mel ni ku dem defi science te loolu laa bëggoon a def. parce que xam nga tamit lu nekk dafa ànd ak jamonoom ak nit ñi fi ñu ko teg parce que soo ñu nee defee woodwork ñi daan def loo xam ne lu bokk ak liggéeyu ouvrier la mooy ñi nga xam ne seen bopp yi baaxul mm-hmm. su fekkee nit ko xale bu tënga ñu ne ah jox ko mu jàngi métier waaye kenn du daan jógee Gambia high school ñu ko jàngi ko métier jàngi na jàngi métier waaye tubaab bi ma nekkoon suñu tiggataay boobu mu ngi tudd Mr Clark ñu ko daan ooyee Pa gis man ni ma yàlla mayee si affaire yi carpentry ak affaire yi metal work affaire yi technical drawing ma bugg bàyyi dama ko bëggoon a bàyyi pour def chemistry mu def suma papa suma papa time boobu leen fekk mu ngi liggéey Gambia high school mais woon boosa bi mo time boobu so mu dem ne ko daal sa doom yi war a bàyyi carpentry kii ni ma gisee ni moo liggéey ni daal Euh, dañ ko dañ ko dañ ko si ñaax daal loolu lañ def ba ma def woodwork ma def ko euh, génn si ak euh, very good results at that time foog naa about division two la amoon also lu jafe woon la time boobu si la mag school bi jël may faa jàngale hmm. damay jàngale woodwork hmm. ba pare one time laa fa am ma jóge fa laabe yi nekkoon Lamine Miserio mooy high school yi fa nekk léegi Saint Peters hmm. ñoom dañ daan def euh, technical euh, subjects foofu ma dem nekk fa junior instructor soo yàggut fan naa benn at la fa am euh, ma dem Balfabeti di fa liggéey noonu laa commencé nag ba tey yi may wax ak yow nii waaw man man ouvrier la lu bokk ak liggéey liggéey loo xam ne lu ñu liggéeyal loxo rek mu man man loolu ma daaneel si wax si waxi tey mm-hmm. waaw loolu mooy suma passion daal mm-hmm. xam nga ni ku nekk sa passion so bëggé forcer li nga def rek am ci passone comme Far Samba soo ko bëggee jàpp rek dugal ko ci affaire yi média loolu moo laa neex wa ni ku nekk da nga def li la neex ya. waaye jamono bari na torop ño xamne li ño def neexu len motax ngay gis nit ñi di jël liif man xawma ma parce que suma ma suma be ngone man fek ñu ngay sam pakir rek mu ngay am rek tay duma du ma sonna waaw moo tax man tey ma mënumaa ritaaya parce que li ma def daf ma neex waaw ñi nga xam ne nag day xëy suba ñuy ñuy liggéey ne da nga fa nekk o'clock ba foo nga wàcca nga dem di sib sa boos yi di def nii di xam nga di mer kooku mooy yàkkamtee ritaaya waaw su ma ritaaya nag naa defe li ma neex waaye su la yàlla wërsëgalee ngay liggéey si li nga xam ne daf la neex boobu doo si musa ritaaya boobu moom ba peel ba rek Eh, kon nag eh, Gambia déggati naa dégga eh, wax naa leen ko li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw bugga li ngaa def dafa am solo waaye Moustapha Njie dinaa bëgg ñu dugga si sa ndaw yaay yow ak sa ay morom you yaa ngi wax ne dafa war a def li mu bugga you know at some point sa collègues yi ak yooyu noonu oo a xarit yi gisuloo ko tukki gisuloo ko nekk di def leneen yow it nga bugg a bàyyi Ah, ma njëkk a commencé du si man rek ñun suñ jamono bi nga xamee ne euh, ok soo ne sa ndaw yaa damaa jël age bracket ñun bi nga xamee ne ñu ngi nekk high school am ay boori thirteen fourteen years dañu yore woon am jom in général te loolu xam nga ma ngi laa wax léegi ne dama bëgg ñu wax lu futuristique nañ jël ñu compare ñu ñu ñu tollale ñu tollale ñun suñ suñ jamono ak jamono ji xew léegi ñun suñ suñ jamono time boobu leen. man bi ma jeexalee high school la léegi léegi tey mu am fifty years forty seven years la léegi mun yàgg na mm-hmm. waaye suñ jamono nga xam ba fifty years ago ñun dañ amoon jom dañ nekkoon xale yu am jom xale yi nag xasuma leen waaye dama gis ñàkk a jom si ñoom. dëgg waaw xam nga dëgg suñu waxantee rek. waaw loolu dama gis ay ñàkk a jom parce que yéen ay xëy suba di taalal loxo nit si ñàkk a jom la bokk. dëgg waaw pare ñaxa mm-hmm. ah am jom boo xam ne ruus nga pour ñaan mm-hmm. loolu si jom la bokka ñun nag noonu lañ meloon mm-hmm. ñun bi ñu am ay katin fotin nekk Gambia high school xam nga naka def dañ daan liggéey si port bi dookaas de duñ daan enu parce que time boobu suñu age niñ mel amoon na amoon na xam nga dookaas mooy dock workers soo demee time boobu leen GPM bi ñu laan export raakal mooy gerte gi le suñ ko busaan dafa dañ ko daan export ba pare GPM bi ñoo daan ooda maalo amoon na ndeysaan na ko yàlla yërëm du ma ko mus a fàtte mu Crab Gueye xam naa ne mbokkaam bi nañ kontaan trop Crab ku ñu woon nañ ko teel a gaañu la boobu GPM bi la nekkoon suñ demaan ndeysaan muy daan wax am na benn xeet lebar bu fa nekkoon suñu daan solal mu naan ko mu naan ko defal nanka ñii ñooy naka sa boosi ëllëg yi waaye nag daf ñu toppatoo dañ daan su xooli day jotaan dañ daan dem foofu ñu dem di liggéey ñaari shift la daan nekka from seven si suba ba seven si ngoon bi tey from seven si ngoon ba seven ci suba mu ne la jël su fekkee ne pour maalo la su ñu import maalo dañ la jël a sweeper da ngaa bale ko gaal gi da nga nekk si biir maalo mu tuuru nga bale ko pare def ko si saako nga ngeen sege ko boor den su fekkee ne rakkal bu ñu export la suñ sotee saako yi dañ ko daan compter di ko lem suñ ko lemee ñu amee nine pare ñu dugal ko si ten one bi ñu tegee ko boor pour ñu compter saako yi beneen bi am na ñoo xam ne dañu daan jël as tali claak di binda wa loolu yob loolu lañ nane def ñun buñu nekké ndaw parce que ñu ngi suñu affaire ndaw ya tamit dañ nane bu ko dem di di nos itam suñu ay nos moy di am danse waaw di dem iya, dance iya, yeen place la won nak bobu ci nekk lañ ko daan defé waaw way pour ma daanal si fii rek su ko defé loolu li ko waraloon moy xamoon nañ ne suñu kilifa yi seen loxo gi jotutoon seen gannaaw da nga bëgg a sol ju gudda boobu tubéy ju gudda loolu boobu am am ak ak luxury la li nga li nga see am du passé ñaar ñetta waaye soo bëggee nak ànd ak jamono jooju leen da nga seet fexé boy def ne si lu djup lo amé xaalis so ñu paré ñaxa gudi gi do nelaw ñuy la fay ngay dajalé liñ la fay nonu sax nga nek student sa ding ci ding ci may sa yaaya sa papa après nga jënd sa simis bu rafet da jënd sa tumé ju rafet su ñoo dance nga tek sa trans su mu def sa trois libar lolu ci am job la bokka waye tok naan kilee dimbalé wut ke li amu fek dekk bi dafa naxari dekk bi yagana naxari du tey ba yalla sanci adna si ben tey adna si musula a neex li fi nekk rek mooy nangu tànga ñemee liggéey am jom ñun nag si suma ndaw yaa li nga wax loolu loolu moo xewoon dañ amoon jom si loolu passé comme li nga wax loolu ñun niñ daan def mooy danse xam nga dans naka la mm. su Christmas daan jot si mm-hmm. da ngeen daan da ngeen aba aba néeg koo xam ne si kër gi euh, ñu abal la néeg comme koo xam ne seen sa mag la woon mm. seen mag lañ mm-hmm. ndeysaan tay boobu léegi-léegi ma gisee la néeg yooyu ba tey ñu ngi am mbir Banjul néeg gi soo ko gisee du passé diggante file fii suñ ko aabee am suñu yenn record yi ñu daan play record play yi ñu su ko du ëppal mm. ay records lañ daan play nii su ko defee ñu am suñ dance nga xam ne bàyyi xëy na nine o'clock ngeen a start balaa twelve ngeen rek mm. um, ñu teg jënd suñ ay minéral mm. xam nga jënd ay biscuit di am suñ dance uh, noonu lañ daan noosee. waaw waaw ba tey sax. Ah. Ah, waaw waaw oh, man tàggat dafa woyof. Ah. Fatou tàggat. léegi <laughs> si naan dëgg yàlla tàggat bee woyof. <laughs> macha allah bu ko defee dinañ dugal eh, li nga xam ne moo nekk um, building a family. Hmm. maanaam eh, kañ nga sanca yow it sa own eh, family ndax yaaya la puus nga takka jabar ndax da nga toog rek nga make sa decision naka la fa demee ak ban age nga get married. man maa ngi sëy at the age of 28 um, suma jabar jotu caam nañu bari nañ ko xam. Euh, maa ngi ko gisee euh, Atlantic Hotel. Mm-hmm. am nga Atlantic Hotel in 1979 lañ ko doon sampa. Mm-hmm. yaa ko xool waaw <laughs> xam xale bu góor nag. <laughs> xale bu jigéen. <laughs> so yaa oh, waaw maña waa xosa yu waa xosa yu bañ to mu jamono afro la ah. moom moon afro bu ney moom moom moon afro waaw ah. so loolu moo am euh, falaa ko gisee ah. euh, ñuy giina euh, ñu sëy ci eh, gor gorlu rek faatu man dama njëkk a samp bla ma sey waaw dina doon bëgg a ñëw si loolu tuuti si bu ndaw bu ma def ak eh, sa family eh, ñu ne da nga téla am jom da nga téla am sa bosi boppa ba hmm. nga am li nga xamne moy sa jabar la mo la yobu ci lolu papa mo la may ndax da nga tok nga nga dajale naka la demee am kilifa yu baax am kilifa yu baax xam nga am jom tamit léegi-léegi wërsat mo ci si ci si ay kilifa yu baax kër gu baax léegi-léegi na am ñoo xam ne dañoo kër yoo xam ne kër dafa baax ba bugg dee ñu ñëw seen jikko waaye wërsag mu nga njëkkaa commencé nga juddu juddoo si ay kilifa yu baax sa ndey dafa fi bu ñaaw sa baay lu ñaaw waruloo fee def lu ñaaw yow nag nga war a am jom ne ah man nag suma nawle yi mooy suma yaay ak suma papa ak suma mag ñi jiitu démba ñi nga xam ne kenn déggu si lu ñaaw nga ne man tamit ñii duma def dara loo xam ne lu ñaaw la loolu sant yàlla macha allah yàlla wërsëgal na ma ko. ma jógee si famille suñu ne famille. fan la fan nga samp sa kër euh, xam nga ma ñu xuus fii tuuti rek. xam nga affaire famille suñu ne famille ñun ni ñu jàppee famille famille lu sa yaaya sa papa ak sa mag ji rek déedéet nijaay yi yi tante yi. Mhm. ñëpp si famille lañ bokka mhm. soo ñun loolu dañ ko amoon ku ne Tafa Ndiaye ku ma xam bu baax xam docteur Samba. Mhm. docteur Samba parce que man suma papa dafa gaaw dafa teel a gaañ. suma su eh, may teel a gaañu ba at the age of 21 si la suma pa gaañu su ma nijaay nag ma mu jël ma def ma taaw di ma di ma bu màngee doon mag di dugg nag si àddina mu eema si ñu bari pare ma ruus ko dama ko rusoon ma ruus mu dégg ma si yenn yi après mu loolu la sàmba ku mu teg si yoon ñu bari teg si yoon rek doo wàcca doo wàcca yoon bi comme li nga wax nii suma foos kër gi moom ko moom ma njëkk may suuf Latrikunda bobu dama dem di apply lan fele lands office may complain ne mangi apply way joxuñ ma Muna ma Modou mustapha yo yo sa yo do fi nekka sa jay am souf ngay ñak souf ben bes la ma oo ma dem fekk ko mu ngi l'hôpital mu wacc rek bu em ma ci deesam bi bu dees la nan dawal xamna lo xam luy dees <laughs> dees boobu moto to taw moto Citroën la way Citroën yi gën a la yu ma belasir kunda fo xamne du man rek fa may nakir nak <laughs> jarbatam yu bari su man ka fim mu moko fa may moko fa dogal suma suma ay doomi bàjjen yeeg you know suma doomi doomi tante yi ñëpp am na ku nekk lu mu la dogal. ma fa la ma dogal ma commencé nag di sampa foofu leen. basically maa ngi commencé di sampa suma kër around 1970 kañ 78 79 laa commencé di sampa. Mm-hmm. waaw booba maa ngi am xëy na boobu maa ngi am ay 20 something years laa am ay 23 yooyu suma kër gi jël na ma 21 23 22 23 daal. non ak 21 foog naa parce que jël na ma six years pour sa paquet benn tey lesson bi mooy rek li say jàngee mooy bañ a lu ma amaan dama daan dajale lu ma am def si so loolu lu am importance la léegi moom dañu bëgg xëy suba rek bugg a am li ñoo am dama dee romba benn xale bu ndaw ak ak moto bu ma dawal ñu eh, moto bi laa war a am amaguloo sax thirty years amaguloo thirty five years man ma man ma dunda ba am fu mu nekk di macha allah. liggéey 50 years. man kay am na sañ si dawal li ma dawal. waaye dama guloo fenn di bugg li ma dawal soo ko buggee am boo di nga def naka su noonu. waaw loolu la nañ ci bàyyi xel nag. waaw nga ne at the age of 28 nga uh, ma sëy at the age of 28 eh, you know sëy boobu comme li ma la rek nii rek yàlla wërsëgal na ma ma samp suma kër ba pare eh, waaye benn tey nag sëy nag dëkk suma kër yaay xam nga yaay ni mu baax rek ak affaire yi sëy Euh, bi ma bi ma maa takka euh, suma yaay euh, ñaax ma cinéma isil sa jabar si kër gi loolu lu am solo la xam nga di ñaax boys quotas ñu fa am noonu suñu sama defar defaraat boys quotas bi baax suma jabar si si kër gi ñoo dëkkaa suma yaay boobu tamit suma rakki papa mu fa dëkk faa suma jarbaat yi dëkk faa suma mag ñi dëkk faa suma rakka yi pare si si kër gi moo moo njëkk si si biir kër gi xam nga loolu lu am solo la léegi-léeg nga gis ku sëy rek léegi ba jamono bari na nag loo xam ne xale yi duñ dëkkaayoo sax. Mhm. waaye nag soo gisee mag ñi daan def loolu pour mun a yar sa jabar tamit mu miin kër gu mag kër gu mag dafa am importance. Mhm. waaw nga ñëw dara du mut waaye nga nekk fa ba pare tamit dem nga dëkk gu rëy rek yëpp du yëpp yëpp du nekk loo xam ne tamit dafa yomba. Mhm. nga am sa ay naxaar di ko muñ sa yaay di la bàyyi xel di la teetee. dëkk nañ fa lu mu dafa naa two or 3 years ma génn nak dem nak luye ji fenen luye ji kër Tafa Ngom tuba ko ron am gannaaw lu nak si la taxu suma kër nag ma sha allah ñuy gis nak di nga gis jigen mu se yalla bi nga amut lu bari nga toog ba am lu bari nga génn ko nekk soxna si. sant yàlla macha allah euh, liñ jikko yi jikko yi ñu amee dafa bari euh, te xëy na moom mu ma si ba mooy mooy euh, wàccee sa bopp. suma jabar ñu bari duñ ko xam. waaw parce que macha allah yàlla xiiru ko si yenn yoo xam ne mu woon na ko cee xiir waaye ku wàccee boppam la ku bugg a mbokka la tamit suma jabar moom a gën a bëgg suma mbokk yi. ba pare jaxasoo ñoom. su loolu dal ci sant yàlla wërsëgi góor wax naa la ne la benn mooy nga sant yàlla yàlla may la ay kilifa yu baax nga juddoo si sooy góor nag sa beneen wërsëg bi nga xam ne moo si war a tegu mooy yàlla may la jabar ju baax jabar ju la déggal jabar joo mun a àndal loolu wërsëg la du mun mun du doole du am am waaw waaw soo sant yàlla bi sëyee léegi yàgg na euh, ba léegi soo ko cegee léegi euh, mu àgg forty years waaw sant yàlla bu baax a baax. macha allah mm. kon nag euh, jigéen ñi nekk leen sëykat euh, roy si ki nga xam ne nag mooy soxna si bu Tafa Ndiaye ngin gën ko xam si Jatu su ko defee rek ñu dugg si wàllum njaboot ñett doom la Tafa am su ko defee ñuy seetaan rek xëy na am na koo xam ne Tafa moo inspire ba nga xam ne dafa bugg mel ni moom. waaw man man sant yàlla juróomi juróomi juróomi doomi jigéen ma yàlla may. waaw waaw ah, man maa suma jabar nag ñeenti doom ñeenti doom la ñu am suma taaw ma mu ngi Angleterre léegi. Mm-hmm. Um, ah, so su ma naa suma jabar ñeenti doom la am jigéen ñëpp la ma dama Euh, loolu la ma yàlla may so waaye ñu in total yëpp man juróomi doom yu jigéen laa am. macha allah euh, suñ mu xam rek euh, so ñu mun waaw um, yaa seeni mooy taaw moo nekk Angleterre yaa seeni Njaay. suma suma jigéen laa ko yaa seeni jobaate. macha allah moom laa ko tuddee. Mm-hmm. ba pare yaa bàjjen tegu si yaa bàjjen moo Ismaïla laa ko tuddee. Mm-hmm. ba pare yaa faatu tegu si maa ngi ko tuddee suma goro yaa faat Jóob. Euh, ba pare tegu si Oumy Samba Oumy moom Samba lañ ko dakkantalee. Euh, parce que suma jigéen. ko xam ne suma doomi nijaay la. ko xam ne suma yaaya ko yar. mu ñu na dëkkoon. mu jege ñu jegeñante lool waaw ñu jegeñante lool lool lool moom laa gën a jege ci suma ñi ma bokkal ndeya bàyyi moom laa ko tuddee mooy woon suma premier njëkkee waaye moom dafa gaañu balaa balaa umi yi juddu sax so moo tax ñu ma ñu ko ooyee umi sàmba ñun doo dégg ñu ne umi njaay umi ko ooyee ba pare caat li mooy yaa soose yaa soose su marka laa ko tuddee mooy yaa soose uh, njaay uh, a lan la def neen xuus si waxtaan bi ñu dem si euh, beneen segment muy wàllum liggéey euh, Tafa dugal ñu tuuti si euh, sa liggéey. waaw suma liggéey man ku nekk soo ma xamee xam nga ne affaire samp néeg nga ma xamee man lu bokkut ak ciment ak suuf ak xeer daal bokkuma ci. da nga am benn mbokk def loolu. déedéet déedéet man suma suma papa suma papa um, uh, accountant la woon um, uh, wax naa la mooy woon Bosa bi Gambia High School uh, PW la njëkkoon a nekka um, jógee fa nekk Gambia High School suma yaay wax naa la lim daan liggéey daf daan jaay mbuuroon liba loolu lañ ko gën a xamee amul benn mbokk bu ci lu yàlla yàlla ma ci xëy rek wërsagal ma si da si sama wërsal mm-hmm. waaw so yóbbu ñu trop si sa liggéey waaw su ma liggéey comme li ma wax man maa ngi maa ngi euh, balfabeti laa commencé euh, balfabeti laa commencé euh, li ñoo ooyee daal sampa parce que pour tamit xale yi jàng xam nga lii soo ko def dafa baax pour xale yi bi jàng si lii nii su fekkee ne tekki naa ci lii rek li ko waral mooy dama nangu woon pour jàng lépp loo xam ne rek lu bokk ak affaire yi sampa la te benn tey maa ngay jàng nag benn tey maa ngay jàng so loo xam ne rek ñu ko def ci sampa rek sant yàlla mun naa ko defal sama boppa Euh, ma ma jógee Balfobetti euh, liggéey euh, fi ñu ooyee Luis Diaz de Losada muy Afro Atlantique ñun boobu ñun ñoo sampa fii Trust Bank head office bi nekk léegi maa nekkoon di project manager foofu jóge fa ma liggéeyal COCC and Sons COCC yal na ko yàlla yërëm mm-hmm. moom mooy woon Gambien boo xam ne dafa woon partnership ak beneen tubaab ku ñu ooyee Richard Wright Richard mu nga dunda ben tey ma liggéeyal leen euh, foofu commencé fa nekk fa project manager site engineer dem ba nekk fa assistant general manager si la bàyyi nag 1990 euh, ma taxawal suma compagnie boppa commencé di samp ay ay ay néeg di samp ay offices di jël ay contract euh, si lu gaaw rek boori 1997 98 yooyu ma commencé di sampal nit ñi li ñu ooyee mass housing xam nga comme estate yi def fi mu nekk nii loolu mu ngi juddoo euh, bi ma demee Amérique benn time euh, boobu ambassadeur bi ma woon Crispin Gray Johnson maa ngi ko delloo njukkal su ma tike la woon French tike Gambia High School euh, moo waxoon ne ma ma ne nit ñi dañuy yónnee si xaalis Gambia ñu bari waaye seen xaalis dafaa yàqu doo commencé di sampa di leen jaay si waxtaan nii rek ma ñëw jënd suuf su ndaw commencé di ko def gannaaw si nag ma gis ne loolu am na solo ma commencé laaj nguur gi suuf jox ma suuf Euh, suuf si ma njëkkaa jox coow lu bari bari la indi woon fii. waaw coow rëy a rëy waaw coow lu rëy a rëy a rëy waaw bu boobu euh, kaani fi mooy fi nga gis fii euh, Nigerian embassy bi nekk ak election house. man dañ ko njëkk a jox. mu juróom-ñetti hectare ak genn wàlla waaye nag coow xam nga rek àddina moom ndok léegi léegi dafa baax parce que daf laa indi lu gën a rëy loolu. Mm-hmm. su fekkee ne. Euh, dañ ma ko jox ba Kaba Bajo bi ngaa gis ni mm. Kaba moo di minister of lands. vice président bi léegi nii Barna Diouf moo nekkoon di permanent secretary. Mm-hmm. Euh, ba pare ñoom Daxa Jaak nekk director of lands ñoom RAF Thomas ñoom Soutey Sagnang. so ma def li ma def binda yëpp waaye nag ndeysaan coow li jóg si xam nga rek suñ borom jaasi ji rek time boobu waaw <laughs> Jammeh Moussa waaw euh, ne daal xam naa euh, ñoom seen biir amoon na si ay problème waaye daal suma projet bi lañ jëloon pour ne man dama def naka sudut noonu ba jox ma suuf si mais génne si ñun juróom loolu lañ leen génne time boobu leen oh. waaye waxuñ ne nag loolu tax waaye nag ku nekk xamoon na ne projet boobu lañ laaxoo pour génnee leen Euh, waaye jamonoy dem rek ak nit tamit soo fekkee ne li nga def li ngay def danga nga ko góom euh, dëggu ci euh, ñu nekk ci nekk ci nekk ci mais dama yaakaar ne time bu jàmmee rusoon na si def na dem def ba pare wax ji bari na waaye buur ma wax la rek pour xale di jàng parce que lii lu bari pour jàngale gi nga buur ak njiit ñu dellu gannaaw mm-hmm. loolu ma ma break foofu rek mais la loolu gis nga njiit am de kalifa du dellu gannaaw mun naa dellu si nag fa jógee waaye du tourné du xëy suba rek tourné nii rek xam nga du tool nii hundred hundred li ñooy hundred eighty degrees demaat fa demaat fa mu jógee euh, fa mu jógee déedéet na koo dimbale mu wóor comme li xale yi daan wëri koñ dina wóor ba pare dellu si waat fa mu nekkoon so dama yaakaar ne foofu su fekkee ne lu ñu war a jàngala la loolu moo fa xewoon parce que demoon nañ ba àgga jamono joo xam ne Yaya Jammeh xamoon na ne lim def du yoon Euh, fi mu nekk ne am ñu jóg dox ko ñu bari si dox nag. Mhm. Euh, loo xam ne international sax parce que time boobu joon naa alal goo xam ne xaalis bi du fii. Euh, ne nag lii nag du droit du yoon. Mhm. sa doomi réew bugg a def lu mel nii nga xëy suba nangu lii parce que yaaxu yaaxu bu rëy moo ci nekkoon tamit xaalis bu bari mhm. so yàlla def nag bi mu delloo gannaaw nag si la jël boole yaram bamba si lañ ma jox yaram bamba. ak joxale ma fii tam burfut boole ñaari ñu jox ma. waaye nga gen rek soo demee be mak di nga jàng yu bari ba pare xale yi jàng si loolu yàlla su lay si project dok rek am na tax mu def ko te ma loolu laa gëm si projet boobu parce que Fatou da ngaa seet ku ñu aayee juróom-ñetti hectare ak genn wala. ñu jox la yundum rek ak tegal ma si rek fukki hectare la bon gisati rek ndok gisati su si lo la rek mu am ndoog rek am na lu yàlla lu la dencal loo xam ne yoo xamuloo ko so na fa la ngëm nekk ak imaan soo ma santee ko yàlla nag euh, def si li ma def euh, sampa yundum pour ñi nga xam ne euh, ñu wooyee time boobu leen low cost housing yundum low cost la woon time boobu kër yooyu ñu ngi ko daan jaayee loo xam ne du daan àgg sax ñaar téeméeri junni two hundred thousand dalasi àggu ko woon kër gu pare yëpp noonu lañ ko daan jaayee time boobu ba pare ñu jox ñu fi tamit fi biñu njëkkee commencé liñ fi daan jaayé sax du daan du daan àgg sax euh 500000 kër gu paré yi nga gis kër yi nga gis ni euh jamono dox nak ba li xew di xew waye li la dal ñu jógee si ma commencé nak di gënë dëkk bi nak di gënë si réew mi parce que dama tollu won jamono jo xamné anglais dañ jé wax né si anglais a big fish in a small pond moy nga am gën bu reuy bu nek ci mbalka gu daw xam nga loolu su amee soo yëngalee sa sa sa sa sa sa càqoñ yi rek rek nga gis dafa isi ay ay gaddax gaddax yi dañoo rëy su ko defee nit ñi ne waaw ki gaddax gu rëy gi mu def fii nii fekk fi nga nekkaa tuuti loolu la ma teel see jàngee li ma si jàngee mooy ne ñun suñ dëkk bi rëyut nag Gambie rëyut dañu wante dëgg parce que tey société àddina si ni mu em eh. ni mu em ak ak Afrique West Africa fii nii nga ko bàyyi xel ni mu em nii Gambia two and a half million la su baree ba bari euh, ma teel a bàyyi xel ne suma ma li ma nekk sama xel ak li ma bëgg a liggéey ak fu ma bëgg a toll Gambia mënu ma koo may ma fexe nag di génn di génn dem naa fu bari dem naa balaa balaa ñëw um, na ñoo xam ne wax ne ne taf génnaam Gambia uh, jaame moo taxoon mu génna waaw fa laa bëgg a ñëw déedéet loolu dëgga loolu dëgga bi maa bi génn sax fekk liñ foog rek amutoon man dama yàgg a bëgg a génna dama teel dama teel la laa laa wax ni dama teel a suma li suma xel ci lim nek ak dama bëggal bëgg a liggéey fi bëgg aga gambe bu duma ko may. dama ko yàgg bo xam. mag mari laa njëkkaa dem Mali president bi invite won woon te man fuma lay dem dañ ma day o oh. Amadou Toumani Touré yàlla ko yalla yere mo ma ñëka invite Mali ma dem Mali dem pour commencer fofu len waye doxutone parce que Mali dafa metti pour euh parce que Mali ko xam nañ ko amul amul geej lu ñu ooyee landlock loolu la woon bari désert ba pare làkka bi français la woon euh, ba pare euh, mun xaral na xare liggéey daal gis nga Mali moo tax ma jàng français dama dem président bi ñu war a waxtaan moom français la dégga man ma dégga man ma dégga angale <laughs> ma dem France jàngi angale ña benn weer bàyyi li ma def yëpp dem jàngi jàngi français so pour lu ñu wax noonu yëpp dégg naa rumba ba bu seen ma dégg ko <laughs> waaye ñàkk xam la rek am ama dama ko ko kenn pour wax ko lu tax ma génn. musu lu woon du saa génne dama tëjoon suma liggéey bi fii. liggéey baa doon dox waaye ku nekk xam na ne fii liggéey fi taay mi Yaya Jammeh yombutoon. ku nekk xam na ko si moor mu nekk nag. ma jàpp rek nag ne du war naa génna ah. ba pare tamit lu ñu woowee opportunité bi wërsëg bi ñëw wax mu ma time boobu leen parce que man dañ ma oo Nigeria. dañu fa oo man dew ma uti dañ ma oolu ma dem ma demee gis ni ma fa war a def ma def ko fa gis tari bi ma ëpp fii téeméeri yoon loolu taxoon ma dem Nigeria waaye dégg naa lu bari ñu naan dama daw ak dama lii dañ waaye da nga xam li nga xam rek nit ñi li ñu moom kenn mënut a tere ba li ñoo wax liñ ko wax waaw soo nit nag sooy dem kanam baati gannaaw doo ko déglu doo ko déglu koo gis muy dunda ba dina am baati gannaaw yonente bi sallallahu alayhi mooy gën si mbindeef li mu dégg ñun duñ ko dégga mm-hmm. waaw soo daal ñun fa lañ teg suñ tànka. so Tafa Ndiaye ma bëgg a rek sa relationship ak Jammeh kañ nga first meet ak uh, Yaya uh, moom ma njëkk a oolu dafa ma oolu. Uh, parce que dafa dégg suma tur moom dafa foog ne man Sénégalais la hmm. loolu la ma njëkk a wax. ne woon maa dégg taaf taaf taaf taaf di gis ay li nga liggéey fii dafa foog ne nga sax. bon mo xamuma won waaye ya. man fekk na man commence na di liggéey bala ya jame do am si nguur ya. man buñ ma njëkk recognize di ma njëkk xamé ci si kat yu mag ñi fi 1992 1993 la boobu ya jame togul tay mi jawara la ya. man ma njëkk a gagné businessman of the year man lañ ko njëkk jox bon su fekke ne pour xamé ma ci liggéey man buñ ma xamé ci liggéey ak yu eh, bari yu ma def boobu yaa jaame toogagul bi mu toogee bu li nga laajte nii eh, suñ gisee mu ngi njëkkee mu oolu moom wax de ma yuju ko mu ne woon dama foog ne yow sénégalais nga pare wax rek na dañu bëgg a jàppale Gambien yeeg yooyu te tamit ne bi mu njëkkee toog loolu la bëggoon loolu góom naa ko parce que bi ñoo liggéey school si xam nga school si njëkk a sampa dañ tànnal ne dañ ko jox doomi Gambie rek te loolu lañ defoon ma jël esew jox ma ko esew high school maa am na NGI ñu jox leen Fuuta am ñu jox euh, Birkama Ba ñun ñom Moussa Mbaye sante yalla ñu jox leen kawr loolu lañ def euh, bu am kii nii euh, Yankuba Touré moo mo woon moo amee woon seen project si time bu nak xam nga xam nga xam nga nguri soldar léegi-léegi baxna ci si ñu ma doxalee bi ko ñom ñu topal waa boba suma ma bi gëna for bi ma amoon bi gëna reuy maa ngi ko fàttaliku Women's Bureau bi nekk Banjul maa ko sampa Taïbi Jawara projet bi yëpp 1.4 million dollars la woon benn million ak ak juróom téeméeri junne loolu la woon time boobu gars yi toog rek ooyu ooluñu ne dañ ñoo jox school si la man biñ cegee school li ñu war a jox boobu 6 million dollars la juróom benn million ba pare si saa si ñu jox ñu advance duroo cek bi jox ñu ko xam nga cek bi lan laa ko def dama ko photocopie ba pare en laaj ko toog di ko xool ndax lii maa ko moom. waaw bu wala rek loolu am la. xam nga xam nga xam nga histoire. Mm. nañ moytu di ko jéem a jagal suñu borom nekkutee. loo gis am na lu bon am na lu baax. Yaya Jammeh am na lu baax lu mu fi def am na lu bon moo ëppa mm. parce que anu yu xew fi yo xamne deug deug sa warta am si affaire yi nguur nak waaye anu lu baax lu fi def de lolou mënuñ ko far infrastructure am lu baax lu fi def te am tamit de gomnaane ne bu tok lu baax lañ bëggoon def waye nak nguura mel nonu nguur su ñoo dugg ak suñu fa yagge du nekk ben nguur go gis la nak waaw so lolou mo xewon ñu ñëw ñu jox ñu school si ñu liggey ko ah, gannaaw si ñuy dem ñu am ay projet su ñoo jox waaye amna ba 1997 1998 la bayi helne ne ni mo bëgg a man ak suma ma jikko wo jikkoowoo mënuñoo anda man dama teel a ya jame yaa ma anda àndaa motax ma dugg affaire affaire development di am suma souf di sampal suma bopa man soko baye hel man nguur fay ma contrat gi nguur man ko mujjé am 1998 la ko mujjé am si mako bayal suma bopa suñu tenda bokuma ma dun fa ne da ngeen against wa waaw loolu yàgg naa dega dañ la against bokulo ci man mm-hmm. yàgg naa dega dégga lu ma miin la bo bo lu am dara lu wañi ci yow dara because lima ma góom laa góom man fo ma dekkale sa problème la mm-hmm. man nag kay jii mako dega ki de moo moo sponsor parti bi mo def lele loolu sa affaire la suma xaalis mako mom nak kuma neex ma jox ko mm-hmm. loolu moom. maa ko ñaxa. Mm-hmm. ku ma neex laa koo jox. waaw loolu moom mu amul ragal moom. Mm-hmm. te óolu naa sama boppa it ne fu ma dem liggéey. Mm-hmm. boobu moom. góor daal fexeel ba am sa indépendance. man du ma against nguur. du ma aw ma dara pour defa nguur ba di ko against. li ma góom daal mooy. Gambia fii lu baax maa ngi ci def lu baax ma ànd cee yow. faalewu ma nag nga soose nga joolaa nga pël nga pati bi nga bokka pati bi nga bokka man Gambia ma ñor moo ma saxal mhm. ku ànd kuy def lu baax rek maa ngi ànd ak yow kon nag euh, mbokk yi yéen a seetaan lu fi def euh, a ngi dégg ngeen euh, ban time o ban bés moo nekk sa first time nga dugg a plane ak naka la 19 1986 um, uh, la woon uh, may dem Angleterre uh, boobu maa la waxal boobu maa ngi liggéeyal si Cissé and Sons ñu yónnee ma ma dem jàngi jàngamu tuuti rek bariwul about three months laa demoon benn course dem def def diplôme mhm. si site management maa ngi demoon dëkk bi ñu wooyee Hove um, boori Brighton si laa jëkk a dugg a plane hmm. so naka la moment boobu. waaw xam nga time boobu rek sooy dem su da ngaa suutu téye sa baag. Oh. you know soo wàccee soo doggee si plane bi. Mm-hmm. you know ndeysaan euh, dem Angleterre euh, suma benn xarit ku ma tooñ. mu mm-hmm. euh, jël si woon Papa Diallo. moom mm-hmm. fa mu nekk di jànga. ma ñëw dem dëkk si suñu benn suñu benn rakka suñu xarit Abu Mbuub këram. am fa ay benn fan oo ñaari fan weekend la woon balaa maa dem si school di ma doon dem. mu nekk xoofu mm-hmm. waaye xam nga rek boobu tam bëgg a génn rek euh, soo jógee Gambia dem fu mel ni Angleterre bu dafa ubbeeku mm-hmm. waaw waaw waaw macha allah euh, loolu neex naa dégg wax naa leen ko euh, si jaar-jaar yi ñit dinañ si waxtaane lu bëree bëri bu ko defee rek Tafa Ndiaye ñu dugal si li nga xam ne moo nekk sa tiixa tiixa maanaam sa taami ndaw yaa jële challenge si nga xam ne moom nga daan face muy tiixa tiixa yu métti yi xam nga challenges nag general challenges opportunity la eh, challenge doo ko ragal ku ragal challenge doo barke doo tekki doo dem kanam so lu jar lu jar a bàyyi xel la challenge bis yu dul jeex li nga ko daan am barka du saa loo du saa loo bëgg rek dafaa sotti boor bu nekk di nga am challenge nag waaye nag eh, yàlla mayoon na ma xol yi eh, mun a muñ suma challenges yi après mun na ut pexe tamit pour seet naka du li ñu ooyee konka challenges yi daaneel leen macha allah uh, naka nga daan daanale a challenge because right now ndaw yi dañuy gaaw a jooy dañuy gaaw a give up. ñàkk a fit rek man amalu ma ragal macha allah amalu ma ragal lu ma gis daal am naa ne am na pexe boo xam ne su fa jaaree rek dinaa ko konka mm-hmm. so dafa naxari pour ne specifically nii laay konka challenge bi waaye moom seen la bi gën a rëy boo pour ñi ndaw yi déglu. mooy mooy parce que Nigeria fi mu nekk nii million nit lañ. man Gambia laa jógee euh, dëkk boo xam ne euh, two million bi su tuutee si tegu ma dem si place bu ñoo ooyee euh, di Niger Delta Niger Delta soo demee gis nga detaal bële gis nga di ma nii laay liggéeyee mhm. nii laay liggéeyee nga ñële mhm. téye seen classe ni ko fi ñële mhm. noonu laay liggéeyee fu ma dem maa ñoo may ànda bon mu woon la ne bon foofu óorul kidnapping nekk fa lu nekk nekk fa liggéey bi ñu ma jox ñëpp a d'accord na liggéey bi lii man fi bëgg def mënut a am lu ci lañ bu rëy la parce que gis nga tan bi ni mel Banjul moo ko raw ndox mi su géej gi feesee about two meters ndox noonu la mel maam pour sekk ko ba mu fees ba par exemple si ko am loolu challenge bu rëy la waaye lu si nekk da ngaa ut bunta rek amut amut dara lu yàlla def fii si àddina loo xam ne amut amut pexe amut nuñ ko war a solver soo challenge moo gis rek am na nuñ ko mun a solver eh, opportunité la parce que ñu du saa gën ne ñëpp a ñu bari dañ ko fa rek tek ko fa ni ma manga ben xale bu ma ci won ne ko euh, so buggee doon businessman bi tekki moy businessman bi nga xam ne ñëpp dañ ko naan li baxul bu ko def mu def ko li ñëpp d'accord do ci tekki bak ñëpp dañ ko def waye tay suñu ne nañ dem Banjul ñëpp ne ah pour dem Banjul li gëna gaaw ma jël suma moto bi rek dawal rek utali coon bul dem man da war a bo boo dina dem Banjul te jaar fofu man ma fa aga man fo pexe moy ne ah, gaal moo gën gaaw xëy na ma cross duga Sheraton amna ben speed bu bu fa nekk ma duga speed bu bi cur boum ben amu trafic jam amu dara duga si ndox mi su ñëwee fa lañ ma fekka ñu ne ko ah, ki fu mu jaar lool moy nak businessman nak business tigi tigi tigi da nga am fit do lo ragal way nak si njub waaw euh, si gëstu bu ndaw ma def tamit euh, Moustapha Njie euh, gis nañ ne win nga award Gambia bu Gambie Chamber of Commerce more than three times uh, naka la jamono jooju meloon ba nga mënoon a you know win business uh, three times you know uh, nekk koo xam ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi def business balaa yow lan lan naka la demee. waaw foog naa rek mooy gëmoon li may def rek xam nga tamit man li maa win man man joxuma ko suma boppa loolu ñu ko mun a ñu ko mun a wax mooy ñi nga xam ne ñoo ko daal joxe ak lan lañ daan seen waaye dama yaakaar nga time boobu tamit ndaw woon tamit ba si at suma at bëriwutoon time boobu leen aguma woon sax forty years maa win yooyu yëpp si jamono am na ñu ma gënoon foor ñu ma gënoon a mag ak yëpp waaye eh, su fekkee ne toog naa seetaat ko li tax loolu am rek mooy mooy innovation li ñu ooyee innovation tey pour ndaw yi ndaw bokk na si li nga xam ne soo ko bëggee def nga dem kanam mooy nga innovative mooy ngay xalaat parce que Bill Gates mu ngi ngir dafa innovative Elon Musk bi ñuy coow fi mu nekk nii pare pay forty four million dollars pour pour euh, pour euh, Twitter dafa innovative you know ñoom Jeff Bezos ñoom euh, naka Mike Zuckerberg ñu ñu yëpp loolu la dañ dañ dañ dañ dañ innovative so gannaaw bu loolu yëpp xewee si li ma gañe nii yëpp mooy rek ne dama amoon innovation nga xam ne ñoo ñoo gis lu bees innovation mooy di jéem a def lu bees lu mooy innovation so dama yaakaar ne loolu taxoon ñu ma may ko daan gagné um, euh, innovation yi ma daan def te ba tey dama innovative soo si bàyyee xel li ñoo liggéey fi mu nekk nii Taf City lu bees la si Africa du Gambia rek euh, fi mu nekk nii si biir Africa su ñoo taxawal yu mel noonu <laughs> soo compté ñaar ñett yi si Africa yëpp dañu fa boole. macha yàlla waaw. Euh, bari si Africa ñu am dëkk boo xam ne muy Nigeria. Euh, place bu rëy place boo xam ne euh, Gambien yu bari ñemeñuñ te dem Nigeria moo especially ku dem dafi ji business euh, Tafa Ndiaye nga dem ba Nigeria dafa am sëriñ bu la joxoon ay gàllaaj <laughs> yóbbu Tafa Ndiaye dafa amoon you ku ko jox yéena you know mbir moo tax mu dem Nigeria ba mun fa am award ba ñu award la as you know real estate person of the year you know lan la def Tafa again eh, rek dafa am principles yoo xam ne man foofu lay foofu lay téyewaat benn rek soo ko gëmee rek eh, liñ de wax si anglais the sky is the limit foo mun di dem mun nga faa tekki eh, man soo balaa mus di góom rek liggéey rek laa góom dem naa jël itam liggéey fa xam nga boole koo njub nit ñi xamee ma si lu gaaw a gaaw rek jikko yi ma amoon ma wane ko fa loolu tax ñu xamee ma fa ba pare tamit jël risque bu rëy a rëy mooy ca la ñu nga wax nii rek foo xam ne maa dem Port Harcourt boobu ñiy def développement sax biir Nigeria ñemewuñu fa. Euh, mooy li ma la ñu bari ne nañ loolu mënut a am soo waxee ñu ne gëmuñ ma ñu ne xay kii mun a génne xaalis bi parce que xaalis bu bëree bëri la woon. waaye nag euh, yàlla tamit ak wërsëgam rek su fekkee ne da nga ñëw si wàlli imaan. xam nga rek sooy dem ba mag nag euh, lu bari da nga koy jëloo sa borom. yàlla wërsagal ma benn ne Euh, lii àlla kulli àll dina feeñee si man dina amee ci man ma ko koo gërëmee euh, waaye su dul loolu daal dafa am ay principe xam ne soo ko boolee lu bari soo ko songee daan ko jub am jom waxoon naa la ko am jom bugga li ngaa def euh, nga nga nga nekk ni ku accountable ni ku transparent nit ñi di la xam nga nga bañ di looy nubatu ba pare nga innovative di bëgg def lu bëss yu bari na yima mu la lim bari nañ ah. waye yima ma lim yu tuuti yoo xam rek ndaw bu ko gànnaayoo rek lu bari so ci duggé yalla dina ko tékkel mm-hmm. waye dal lima gëna gom si suma ci suma jamono moy ak ci suma ci suma dunda moy juk nit dafa juk mm-hmm. bari na jubali bari na si aduna ci légui té du ndaw yi rek de dangay mm-hmm. ku jox place nga xam ko ni xam am xam kim doon la ñu wax ñaari at nga gis ko mu wécceeku ñi koo coolii nii bi lay jubut mun ta gaawee noonu soo daal si li li ñu fonka si suñu àddina li ci mooy jub jub mooy gàllaaj sama lagi ma loolu ndax dama am gàllaaj gu ma ràngo woon a yëpp ma ràngo woon rek moy djub rek ma sëriñ ñaari bor la ki ma dara suma sëriñ la waaw dedet xam nga jaay dañuy wone so wone nek businessman nga wara nek ku mel ni taf ak eh, jaar-jaaram hmm. ak li taf am you know hit na dafa am bena sëriñ bo xamna moko jox you know bena gal dedet dedet dedet way man man taaluba tijaan la lu fonkana fonka Aziz Al Amin suma wasila na musulmi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 fatumata mata lay wuyo may ka sun box yi fin ko de denje so dama ka di jël kelay pour ma mën dem si auto bu ma ka ne right now ok idea bi ne ka first thing bi man di ka halal because dama ne ka ni ko xamne comme yëfi challenge dafa ma ne so yalla def mo waaja school so ma ga advertisement ne bena company ñu ge advertise comme jigen dal den la jigen fi da so ma ne Uletah duma apply hara ma apply so buma apply lu jero wik sax gaay oma du som ci yo yan don def fita, fita yo fita nga kon so kenen ki daf ma wane ne man suma tija mune, suma mom su su su suma wache la la buga a suma dom ne ko man fita laay nekk mu ne ko kon da nga bugg a mel comme suma e. wontata fammomilen jama walla leñin peengota coronavirus musasa sotori ngansi andin amana nyim keleti wala ñimmu musuleti aman siibo ñoto mo wini jama fata findu banko kan walla leñin sasa soto andin aye faale coronavirus man jaral soto bari fanan akibar kibar dima mumunti ay penguo soto le Geolife Music. Yeah, but I. Uh, boo xam ne soo ko boolee lu bari soo ko songee daan ko jub am jom waxoon naa ko am jom bugga li euh, nga def nga nga nga nekk ni ku accountable ni ku transparent nit ñi di la xam nga nga bañ di lay nubatu Eh, ba pare eh, nga innovative di bëgg a def lu bes yu bari na yima ma lim bari nañ ah. waye yima ma lim yu tuuti yoo rek ndaw bu ko gànnaayoo rek lu bari so ci duggé yalla dina ko mm-hmm. waye dal lima ma gom ci suma ci suma jamono moy ak ci suma ci suma dunda moy jup nit dafa jub mm-hmm. bari na jubadi bari na si aduna ci légui te du ndaw yi rek de rek mm-hmm. ku jox place nga xam ko nii xam lim am xam kim doon balaa ñu wax ñaari at nga gis ko mu wécceeku ñu koo coolii nii bilaay jubut mun ta gaawee noonu soo loolu daal si li li ñu war fonka si suñu àddina la ci mooy jub jub mooy gàllaaj xam nga laaj nga ma loolu ndax dama am gàllaaj bu ma ràngo woon a yëpp gàllaaj bu ma ràngo mooy jub rek ma sëriñ ñaari bor la ki ma jàngal dara suma sëriñ la. waaw déedéet xam nga jaay dañuy wan so soo war businessman nga war a nekk ku mel ni taf ak jaar jaaram. Mm. ak li taf am you know hit na dafa am benn sëriñ boo xam ko jox you know benn Dede, dede, dede, dede, waaye man man taaluba tijaan la luma ma fonka nag lu ma te man maa nga jokkati si jamono ku ma ham-ham, ma ak sëñ Abdul Aziz Al Amin mm-hmm. euh, suma wasila la nag muy suma sëriñ kooku la ooyee suma si jamono bébé moo moo gaañu yàlla daf ñu daf ñu daf ñu yàlla ñu boole woon mu nekk ku ma ku ma fonka ku ma bugga def ma doom balaa moom sëñ Mansour borom daara ji suma papa la woon moom ngir doomam suma xarit la woon dañ naan def business ne si yàlla si Jamil si dafa gaañu suma doom biñ ko mayee yaa bàjjen moo ñëw mayee ko bon su fekkee ne sëriñ la ma ñu lay oyee sëriñ gis nga fatou ma xuusal la tuti abri serigne ya legui ak ñun suñu jamono nga serigne ñu bari ñu wooyee serigne yi ah, lobbyist lañ serigne yi téléphone lañ te man bëgg naa moma gëna serigne yi ah non non non di mel jangal da nga composer waaw legui ni da am soxla ci baro mu war ko def serigne bi xamna baro rek mu koko ko ne ko ayo fat samba xam nga xam nga fatou rek suma talu bu baax la way dimbalal mako ci li rek baro saayit mu am waaye toog si néegam xam nga sëriñ yi léegi ñii day ñaan bari wuñ de amuñ joti ñaan hmm. na ma yàlla baal nag si ñoom nag hmm. waaye jamono lañoo wax ñu bari yaa ngi gis bi muy wér yu xew koo xam ne da ngaa da ngaa recevoir da ngaa gis say taalibe ba ay three four o'clock hmm. ah, ba pare ak si jógee da nga war a julli da nga war a wéetoo sa kurus ah si jamono nu demee ñii wéeta seen kurus bariwut am na am waaye ñuy wér seen kuréel di ñaan bariwul noonu lool. bariwul ah bariwul soo daal man daal su fekkee ne daal def naa sëriñ mu ñaanal daal na composé laal. macha bi. su koolee rek <laughs> xam ne mooy Moustapha Ndiaye rawatina nag ah, yéen ndaw success biir Gambia lan nga a toog ba ne lii mooy AU village yi xam nga AU coow. mais Gambia tuuti kenn mënu fa def coow ba ëllëg nag maa la ndaw ngeen. sooy tekki ci dara lu xam ne rek lu ñoo xool rek dina bari coow. bu ko ci ragal nag. fekk yaa ngi gànna yooyu yi ma la waxoon. soo gànna yooyu amul problème waaye ak fii kenn amul lu fay def lu ñëpp di xool te coow du ci am. EU village bi moo am Yahya Jammeh gëmutoon ne mun naa koo def te moom jógewul si moom de waaye xam nga politicien ak président su yëpp sottee dafa woon ñëpp ne man la du woon moom bolong sonko mu ngi dula benn tey suma serne la Mor Socé yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na ñooñu lañ joxoon pour ñu régler affaire yi EU bi ñooñoo ñëw si man jaaxle fan la ñoo Yahya Jammeh dem na Soudan ne dafa host di EU in December ne mon ko host in June ta mon fen fuñ dalal head of state yi ñoom ñuy wóor ñu commencé fi bes burfut do fuñ dekkal head of state man li dama ko sampa diko jaay am nañu ko mom ba paré ñuy seet ak seen pexe man nak ko ko businessman la ma ngi am souf souf suñ ko sampa mako mom ba paré amon na taatul ba paré té xamna naa naka la ñoo sampee tamit président suñ demaan fiñ dan daan parce que andana ay balaa lolu andana yaaya jamm ñetti yon tukki sipilin am yóbbu nama Nigeria yóbbu nama Sudan yóbbu nama ma America ma ne suñ demaan president la si hotel suite la deka, one bedroom also ben bés dañoo bokon hotel. so bi ñëwee gis ma man len ah man day soxla si president su fekk lool la loolu diggante file jun mun ko pare gobuñ ko ñu fexe boobu nag Mamoudou ndjay mo nekkoon secrétaire général xam nga fer bañ xam nga li nga wax nii mooy dëgg soo gisee nga def programme bi baax na. Mamburé moo woon secte jàngaral. ñu wax ma ko ma téléphone ko Mamburé su ma raka la. ne ko ka ñii ñoo ñëw si man. tam nga yaay jaamee soo gisee booba bugguma woon dem si moom wax wax jooju ma bëgg demal sama boppa boobu Kaba Bajo mii nii ñëwaat na ba nekkat foreign minister time boobu. may woon foreign minister. ma xam ne su dematee si moom ne ko ah taf lañ bëgg gis xëy na mu bàyyi xel lañ ko waxoon si africanisme ba mun na koo yaaxa. ma waxtaan si ak Mambouré Mambouré woon a baax la dinaa ko utal appoint dinaa utal appoint mais nga ñëw gisi ko ba si àjjuma ma dem gisi ko ne ko kat sa gars yi ñoo si man liggéey lii mu ne ma lii da ko ma def xam nga ak jaaxle. ma ne ko man mun naa ko def ma ne ko nag ànduma suma ay condition mooy. benn. kenn du ci bokk. xam nga affaire civil servant. maa ngi leen a baalu aaxa. luñ bokk uh-huh. soo ma ne ko bu ci kenn bokk. comme que man maa moom suma suuf. Ah, mun na ko mun na ko régler buguma daal ki lay kii consultant li lek fi la xarijar gene fele directly dina defal report nit bu jot ah, wer bu jot mal defal report nako jox jox secrétaire général mu jox lako mu d'accord accord mu ne ma luy ñaar bi ma rek ko dama xam ñata ngeen am fekk man cek na yeb mu ngi won mu won 5.5 million dollars mu ne ma ñun four dollars rek lañ am ma ne ko nako liggey risk again xam nga do ma def lolu suuf si mako mom suma su ma ko liggéeyee su ma def suma xaalis liggéey ko ñom suñ ko suñ ko suñ ko jël yi ma jaay ko te lolu xew na so mu d'accord mu ne ma nag am nañ yaakar na ni dinañ am xaalis ñu mëna am yépp waye yaakar na dinañ am lu am dinañ la fay ma ne ko d'accord yoy ma won suma condition so ñu commencé ñu bari gomuñ won na liggey bobu na mëna a pare def ku nekk gis nako 2006 bi ñu ko def si si si jamono AU boo xam ne defee wuñ ko Addis Ababa bu Gambia bi time boobu moo gën a successful parce que président ñëpp a ñëwoon ñoom Gaddafi pour amee leen yombul ñoom Gaddafi ñoom Ahmadinejad mm-hmm. Iran mu fi woon Hugo Chavez Venezuela mu fi woon ubula Kofi Annan di war a jeexal mu fi woon ñoom ñoom euh, président ñi nga dégg ñu mag a mag ñoom ñoom Thabo Mbeki ñoom Obasanjo Ablaye Wade Eh, eh, ñoom eh, kii nii Zimbabwe Robert Mugabe ñëpp a ñëw so pour war koo liggéey time boobu leen te ñu ma ko liggéeyal yëpp doomi réew mi léegi ay xale yu ndaw laa jël ñu soggal liggéey bi liggéey ko ba mu jeex yëpp jaar si yoon bon tey su fekkee lu suma xol sedd si lu ma liggéey si réew mi mooy AU Villas comme si li nga allah eh, kon nag eh, déggati ngeen eh, beneen dëgg wax naa leen ko lu fi def foog rek nga laajte ko ki nga xam ne moo ko def ku ko deful du la ko mën a nettali te it mu fàtte leneen kon nag faatu bugut fàtte nen def nii rek dugaat xuusaat si li nga xam ne nag mooy waxtaan bi Moustapha Njie ma bëgg a xam jamono ji lan la taf di def. fi mu nekk maa ngi samp Taf City Taf City mu ngi diggante Gunjur ak Brikama li ko waral mooy dama gëm ne euh, pour euh, nit ñi mun a am dëkkuwaay yu baax mu bari def ay estate doyu te loolu nag maa ngi ko teg si euh, africa parce que man tey maa ngi bindu si lu mu juróom-ñetti dëkka yu maa liggéey man Gambia du gënu sa rëy si li maa liggéey léegi su ma liggéey mu ngi ëppee Nigeria ma gis ne dama dem ci ay conférence yu bare bare bare tay suñu dé hôtel li ñu woyee affordable housing moy lo xamné yomba na ci nit ñi pour affaire yi néeg man ci afrika dañ ma ci bolé so lu ba dañ ko dé waxtané man nag ma gom ne so waré def kër mu gëna a yomba o nit ñi mu sé jot lo em rek ci develop ay estate So baye hel fi dëkk bi estate yi gën Gambia mooy Bufur Gardens Bufur Gardens 600 kër yu paré la lu am fefu fu nek fi fii bil mu jeex tak fi rek la nek bon lu su fekke ne Gambia la àgg nañ fofu so ma xalat nga legi dañu war def lu reuy ma bugg a samp deka ci tax may ko def tamit moy nit ku nekk da nga bu a sa bakka neex mhm. sa bakka na mu ngi gëna neex so fi jógee mhm. xam nga tay ñu la ñu la ñu la laa sa mam yi di wax luñ fi def mhm. ngay maye di futé ku joxé ngir sa mam lu baax lu defoon la man di sama sët yi dama na liggéeyal ndax ëllëg si biir yal na yéex su ma fee jógee su ñu nekk Tafa Ndiaye sa maam moo fi def lii moo fi def lii nga xar suuf si dugg ci def li nga def moo tax moom nga fee def loo xam ne mhm. euh, dina yàgga torop pour nit def ko euh, loolu nag maa ngi ko jàngee si Dubai dëkk bi ñooy Dubai soo bàyyee xel Dubai Dubai suñ dee liggéey dara duñ dee xar keneen ñëw raw leen dañoo liggéey dara ba nga foog na ñu ne ñoo raw si àddina si lii ñu xalaataat leen lu gën a garaw defaat loolu mhm. loolu mooy innovation benn tey rek boole ko yu bari bon ñu bëgg a def Taf City euh, Taf City commencé ne li ñoo def dañ bëgg a mu ëpp ñaari yoon su fekkee da nga foog ne Banjul dafa ñun suñ Taf City mooy ëpp ñaari yoon ñu jàng nag seet nit lan la soxla si dëkkuwaay yëpp ñu def ko fa euh, mu nekk loo xam ne euh, lu modern la li ñu ooyee smart city nga xam ne léegi affaire électronique électronique yi nii yëpp dafa am ba pare eh, lépp loo soxla ñu boole ko si affaire agriculture parce que dama seet rek ne su fekkee ne dëkk boo xam ne di nga am lu mut eh, fanweeri junne nit dafa dëkki thirty thousand nit ñun su ñun li ñu bàyyi xel mooy dañ bugg a lépp loo xam ne ñu ngi koo dundee mu jógee si ñun soo xëyee suba incha allah lañ njëkkaa def te di nga ndéw mhm. di de ah waaw su ko be su fekkee da def sa omelette mm-hmm. lu ba moom benn nen di nga ko fray ak jamono ni moo demee ñu jàpp ne su bàyyil xam su fekkee ne thirty thousand nit ñoo fa dëkk nga jël fifteen thousand bi rek uh, fukk uh, ak uh, fukki fukki junne ak juróom ah nga jël ko ku si nekk benn nen mm-hmm. fifteen thousand nen loolu rek business la soo dañ faa am poultry dañu am ay nag yoo xam ne ñooy defar meew yeeg yi nii yëpp jën dafa nekk si benn benn géej gu ndaw gu fa nekk dañoo li ñuy aquaculture daf faa am université daf faa am collège daf faa am school daf faa am technical training euh, vocational living dafa dafa am commercial centre dafa am yu bari yoo xam ne rek loo soxla si dëkk daal di ko fa am nga xam pour génn so loolu lañ nekk di yëngatu ñu ngi ko commencé euh, octobre la président bi teg xeer bu njëkk bi den euh, ñu ngi commencé di sampa januari janwaari bii nii mel ni juróom benn weer la fi mu nekk soo fa demee doo ko góom mm-hmm. liñ fa employé si nit rek àgg na 300 nit ñoo faa liggéey. Euh, di kontaan di euh, sagal suma jigéen ñi tamit soo demee ba gis xale yu jigéen ñi faa liggéeyee mm-hmm. ñoo ko yor. <laughs> foofu naa fa waa dëkk bi fii. Mm-hmm. fi mu nekk nii ñu ngi commencé di train xale yu jigéen ñu liggéey comme ouvrier ay électricien ak ay carpenter ak li tax may la ko wax mooy suñ kër yi suñ xale yu góor yi. nagoo ñoo liggéey. Mm-hmm. nañ jóg liggéeyi. Mm-hmm. soo buggee tekki bëgg a barke nañ liggéey man daal li ma gis tey ci dëkk bi fii liggéey gi ëpp ñu si ñoo liggéey xale jigéen ñoo ko mujjee. Ah, kon nag eh, dégg yu jigéen ay liggéey képp koo xam ne xale bu jigéen nga toog sa kër bul def noonu jógal nga liggéey waaye it góor ni suma càmmeñ yi jóg leen ngeen yëgu ngeen xam ne faatu bugut yambar Fatou dafa bëgg a góor jàmbaar góor bi nga xam ne day liggéey bu ko defee rek Moustapha Ndiaye euh, danaa bëgg nga wax ñu si yan dëkk nga am sa own place si yan dëkk nga am sa ay place yoo xam ne nga ne fii maa ko moom ko fii maa fee def business. bi gën a bi gën a rëy mooy Nigeria. Mm. Euh, Sénégal tamit am naa fa ay place waaye rëyut lool parce Sénégal man si man. dikay gën a naqaree liggéey si la bokk. Hmm. waaw waaw wuu Sénégal dafa ko liggéey. Sénégal hmm. dañ bari bureaucratie mako wax. Hmm. Sénégal am lu nekkal gis nga Jamñaajo bi nga gis ni ma fa jëk am place time Ablaye Wade. Jamñaajo Ablaye Wade moo ko ñu ka taxawal. amna ben Gambien la ko jaay moom la ko mujjé jaay amna fa kër toujours dama fa ré am ay léegi ma jëna dara jaayar ko def yenn yi. waaye daal Sénégal daal li ma wax rek euh, am nga Tiwaawan fa la nekka suma wasi lay fa la nekk du ma fa géej toujours damay dem te ni nga faatu bu ma la waxee gàmmukat la gàmmu laa góob dama gàmmu ji ba Ndar maa ngi jógee Ndar last month ah, ah, waaw yooyu si suma si suma ay wiis lañ bokka mm-hmm. so ba pare am naa fa ay xarit am naa fa ay mbokka mm-hmm. euh, naa fay dem toujours euh, waaye daal business daal man daal métti na trop pour man bu ma defa business. Mm-hmm. soo su passé loolu comme li ma la wax Nigeria lañ gën a bari registré nañ euh, yoo xam ne de active wuñ fa waaye def nañ registration na yëpp jamono demoon nañ fa mm-hmm. waaye mu am tax ñu taxawal ko mm-hmm. Mozambique dem nañ fa de fa euh, dem nañ Cameroun dem nañ Rwanda euh, Togo Côte d'Ivoire yooyu daal moom la ñuy def fi mu nekk nii nag ñu ngaa dugg Sénégal am nañ yaakaar ne Sénégal euh, dina dox am nañ ci yaakaar euh, sign nañu ak nguur gi euh, li ñu wooyee MOU laan bi ñuy jox foofu la moo ëpp fuuf li am fii ak li ñu def Sénégal yëpp ak li ñu ci yaakaar nag waaye nag yi Afrique naa teel a wax lu dara lu gaaw mooy mooy ne politique moo ñu soxal li ñu risk mooy problème yi Afrique pour def fi business parce que li tax mooy nguur bu nekk si Afrique léegi dafa am lu ñu ooyee term limit. term mm-hmm. limit di mooy between four years la ba five years li si ëpp five years la te nguur gu génn su keneen ki ñëwee rek caxat caxati waat yëpp. Mm-hmm. seetaan la na xewoon ki sign léeg-léeg ki def léeg-léeg mm-hmm. euh, ba pare tamit euh, même ñi toog euh, dafa am dañuy yàqamti. parce que ñun li ñu liggéey mënut a jeex si ay juróomi at ay fukki at comme comme par exemple taf city bi nga gis nii ñu ngi yaakaar na ne jël twenty years pour ñu sampa ko. bon su fekkee ne nguur goo xam ne daf ko def si jamonoom loolu mënut a am te li ëpp si politicien su ñoo def ay projet yooyu dañ bugg si seen jamono mu pare time boobu de loolu mooy mooy mooy mooy risque ak challenge bi gën a rëy pour business ku mel ni ñun lu ñoo def ñu biir biir Afrique waaye am yaakaar ne Serong daal euh, soriwul Gambia te at yaa ngi gën a yokk macha allah waaye bëgg nañ fa def dara daal. Euh, kon nag euh, yéen yàlla lafal euh, ki nga xam ne mooy Moustapha Ndiaye cat yéen na ko yàlla may fan bu gudda wér gu yaram muy gën a di def di def di def ngi nay dégg su ko defee ngi naa gën a get inspired dafa sa waroon a delluwaat baak ñu yóbbuwaat la baak si sa ndaw yaa ma tey nga delluwaat baak si 40 years naka nga doon lan nga doon bëgg def different génn bi woo ma génn dafa Gambie dafa tuuti lu waral lu ñaaw dafa tuuti foo doon dem su ma xool bi fi mu toll. Ah. xëy na Gambia <laughs> man su ma yàlla mayoon ma gën a yong fi mu nekk nii ak li wal sa expérience la. à ah. ah, forty years ago. xam nga laaj ñi. waaw ma ko doon def. waaw oh mooy suma dëkk mooy noonu la xoolee dëkk. Mhm. maa nga ko wax. Mhm. waaw waaw. birigal loolu daaw dégg naa beneen. loolu moo am. sunna la. Hmm. sunna la gis nga ni ma laa xoolee. waaw sunna la yonente bi sallallahu alayhi fan la juddoo Màkka fu mu tekkee fu mu fu mu tëdda Medina sunna la gàddaayu maa ko wax sunna la sagatuma dëkk bu ndaw nag ta ma dëkk bu ndaw neexut a tekkee foo romba tey tey Fatou Samba yow soo doon dem Banjul su fekkee am na moto bu ñu la xàmmee bala ñëpp dañ la gis balaa nga fa àgga mhm. dëkk bee tuuti su ma tukkiwaat ba ñëw su ma agsi rek nit xool ma ma ne ah, nga ñëw fan la ko xamee benn télé la ñu am bati xaadi highway bi ba Banjul jaar di yaa ngi ree la nga leen tuuti dëgg moo tax nag léegi-léegi da koo xam li ma gënal nag lu ma am nag indi ko fii comme li ma def fi mu nekk nii Taf City moo naa ko samp feneen waaye nag ku daxa nag mu jëm kër moo tax may ko commencé fii waaye su fekkee bu am am rek la déedéet li ñu nekk suma xol xajul Gambia mm-hmm. que wala nañ ko li la jire Nigeria mënuñ ko am fii ñun li ñoo samp Nigeria fi Gambie ni mënuñ ko Afrika, Africa Afrique yeen seen jamono ak ñi leen gëna nekk ndaw nañ bàyyi xel ne Afrique benn la mu mujjee ji moy benn dekk la ñu doon ni comme légui ya nga am li ñoo di waaw ya nga am li ñoo di African Continental Free Trade Area Moy ñu ne lo défaré sa réew légui mu nga ko jaay ci fu nekk soo su fekkee ne soo demee Nigeria soo ko fa jaayee moo ëpp uh-huh. ah dem rubbi nag waaye soo gisee ñëw doo dem di fajal ñoom ñoom boor waay uh-huh. Ah? Uh-huh. waaw soo man daal bu ma ama si gàcce te xale bu ma déglu bàyyil sa xel ne da ngaa compete ak one point three billion ni ñi nekk Africa bul teg sa but si ay two million nit file fii wax ju sew jee bari mooy lu waaw tey sol na ko jëndee yat ah. moom mooy kanat ah. fu mu fi jógee yàgg ah. xamula ko woon démba ma ne Fatou Samba dañ ñoo jaayaat maam la fi waaw maam la fi mais moo am moo am mm. moo tax luñ am nag comme li la wax rek fii lañ ko bëgg indi mm-hmm. waaye nag soo bëggee tekki daal ba ñuy lay coow mm-hmm. sa bët du mu am si fii waaw sama dum em si Gambia kon nag Moustapha Ndiaye moo ko wax sax su ne ma leen naa wax lu mu fi def waaw lu mu fi def nag fii la moo feeñee kon nag seen fi nekka ah, waaye eh, Moustapha Ndiaye dinaa a ñu dem eh, foos si président eh, ki nga xam ne mooy Sir Dawda Kairaba Jawara former président yi Gambia late Sir Dawda ah, ñu bëgg rek soo ñu waroon a describe Sir Dawda noo ñu describe la Sir soo un démocrate Sir Dawda Jawara Gumuton dara lu moy démocratie loi ak doom adama daf ko gum naka la mel yow nga liggey ci nguri sa daw halal la won nak parce que four years la liggey mom way lolou la gum. sa daw nag roi roi la gëmoon xam te gis nga so gumé démocratie torop torop torop torop yu bari doo ma def mm. lolou moy démocratie hein ah. mm. nit li right la mo taxor may la African Human Rights ñu def office bi fii nii Gambia lolou la gum. su ñu amee lu ñu ko fàttali ko mooy soo buggee ut démocratie axi yelle fi doomu aadama daal saa daaw jawara mës naa mi tak moom toog ak moom wax ak moom. waaw xam fu mu woon maa nekk xale di nekk di liggéeyal bal fa béti demoon nañ ba state house ñu benn golf course bu ndaw waaw boobu su ma demaan dama ko war a fekk fa muy nii dañ ko war a defee def lii def lii mhm. ah, bi ñoo bil Atlantic hotel tam mos na faa ñëw visite si fekk ma fa. soo amoon naa wërsëg gis ko rek som vérifié bariwul nag lool mais waaye gis naa ko. Mhm. waaw Yaya Jammeh. borom jaafi bi. Ah, borom jaafi góor gu ko yab rek dafa la online ah dafa ñaay li nga wax dëgg la dëgg hmm. ñeme ñu ma woon ah. su ko bëggee mucca ah. ah, boo bu ko nga netali ko ko ragal waaw waaw man yaaya jàmme rek laa ragaloon moo tax dama ko daan bàyyi xel dama ko daan study comme ni ñoo study book su fekkee ne rëcca naa ko mucca naa ba toog di ko netali tey lii moo tax su ma morom yu bari jaar nañ fa am nañ problème hmm. lu mu bugga bugguma hmm. xam nga laa ñaan. su amee lu baax na ma fàtte. su ah. amee lu bon na ma fàtte. Ah. mën nga mucca waay ah. waay Tafa Ndiaye balaa dugg si Adama Barrow sax dinaa bëgg rek tuuti euh, jaame euh, at some point nga génnee nga dem um, hustle ji outside comme ni nga ko waxee rek um, you know da nga daan ñëw holiday si biir dama daan ñëw dama benn weer boo xam ne du ma ñëw ba jaame def ba jaame mu fàtte la xam nga xam nga xam nga yaa jaame tamit daf ma gëmoon tamit NSA dafa ma gëmoon xamna lima mun xamna man may kan na wax dara hmm. diplomatic passport businessman man la ko ya Jammeh njëkkaa jox 1998 wow 1998 lama jox diplomatic passport te boba am ñu di xex parce que dañu amul fuñ tollu won man fogné aguma fa hmm. ngir boba dafa amone ñuma don represent represent euh, bobu ñu ngi di West African Enterprise Network executive bi la may àndaa suma ay morom yoo xam ne dañ daan am diplomatique passeport ma binda man damaa oo tur nag parce que am ñoo xam ne ñu ngi dunda benn tey Willy Diouf Willy moo nekkoon di permanent secretary mhm. euh, Sidat Diop moo nekkoon di di minister of external affairs mhm. am nag ñu jóg nag di si yëngatu de lu tax ko jox te ñoom joxuñu leen ko mhm. ñu dem si Yaya Jammeh amoon na ay qualité yoo xam ne tamit qualité leader la loolu mu ngi si moom mooy leen lu tax ko nangu ku xam ne da nga gëm ne da nga ko a am bindal nga apply waaye buñ ko nangu si moom. soo ñu ma ko. ba maa yóbbu yóbbu na ma America boobu again Mambouri Njie moo nekk euh, moo nekk. Euh, xaar pour mu yóbbuwaale dafa bëgg na yóbbuwaale boobu mu ngay dem pour meet bu moo di corporate council for Africa ñun ñaar rek la yóbbu woon si business man te business man yi bëri woon nañ fi ah lay fish yal na ko yàlla yërëm ak man la yóbbu woon biñ demee am nañ euh, benn secretary of state for urban ak housing daal ak yooyu bi kooku waxee ba pare moom mu war a tontu moom yaa jàmmee mu ne lu tontu mën naa ko tontu xam nga nag loolu tamit loolu ona la uh-huh. nit ki ak loo bañ bañ bañ bañ xaj bu ne ba ñu weexu man nag or ma dama ko fonka man kenn du ma defal lu baax te du ma ko wax ak luñ ko mun di wax human rights ko tam yi man du ma jooj bi su paree gars liñ ko ootee yóbbu yooyu ñooy seen liggéey la waaye loo xam ne si jamonoom lu baax def na ko loolu def na ko bés boobu lu ma ma lu ma marqué lu ma lu ma bàyyi xel la mu kontaan si lool xam nga loolu yëpp am so su ma diggantee moom euh, du saa génne dañ tàggoon completely waaye daal dama ko daan moytu daal ñemeñu ma ko woon daal mm-hmm. ba am na jikko yum jikkowoo man jikkowu ma ko man du may def deal ak government man bugguma liggéey nguur bugguma liggéey nguur bugguma deal parce que dama bugg suma doom yi ëllëg a suma sët yi bugguma mukk ma jógee fi ñu naan sa baay moo fi defoon lu ñaaw lii mu mm-hmm. dama duggoon ci lii man dama koo moytu man doo dégg mukk ne dil bi am naa ko nguur ak lii ak leli ak laa dama ko dem mooy ci lu gën a bare daal so yaa jàmme daal li daan defee bay naa ko xel ah, daal te ñëw ñu ma ko woon daal te su fekkee ne mucc naa moom loolu ma muccaloo macha allah su dee si moom looloo ko muccaloo kon nag ah, déggati ngeen beneen dégga ah, bu ko defee rek Moustapha Ndiaye ñu dugg si Adama Barrow naka la mel you know. xam nga Adama Barrow ba tey mu ngi fi. Mm-hmm. soo pour jooj ko ni ku nekk soo koo jooj dam li gën mooy nga jëkk su fi jógee. su fi jógee parce que mun naa commencé def lu baax balaa moo ma waxee lii balaa moo jeexal mu dem naka su dul mm-hmm. noonu. balaa mu fee jógee mu def lu baax. waaye comme rek waaye li ma ko xamee xam nga moom wax na ko Adama Barrow wax na ko fu mu dem na ko wax si suma mbir. Mm-hmm. te man moom ma njëkk a xam moom ma njëkk a xamaleku. man bu wóor wax na ko sax bi ñoo bi ñoo bi um, teg uh, xeer bi fii nii Taf City ne dama demoon di jënd benn uh, uh, bagage si Alaaji Moussa Ndiaye boobu moo fa nekka wax na story bi sax ma ko répétaat uh-huh. so bi mu ñëwee ba ba ba fallu ba toog suma benn rakka ju baax buur buur ku ne xam ne suma rakka la moom moo ko xamoon ma nekk Nigeria mu kool ma ne ma son mag yi kaay nuyu suma président bi man ko buur président nga maa jox hmm. dama tiit sax mu ne ma ma ñëw bi hmm. eh, a neex hmm. eh, ma ñëw eh, a fu ko jox dama koo jox dama ko may dama ko luyee bi ma ko luyee ku nekk wax ne bu ma ko jox ñu ne ma ko barka horizon barka boobu impasse bi la woon yaay jaame mu ngi fi woon. mu war a ñëw dëkk si Brufut fii. Mm-hmm, dëgg la waaye nag man li ma góom laa góom. li ma góom laa góom euh, ñu luyee ko mu dëkk fa. xam nga temps boobu tamit ma dem di ko gisi. di ko gisi tamit di waxtaan moom seen yu bari yu ma yaakaar ne xalaate naa ko nii nguur yi ma war a dugg si ni mu war a demee. Mm-hmm. Euh, bi loolu paase euh, su digganteeg moom jàmmaa si nekk diggante président ak lii nii ak. ak ak businessman lu mel ni man eh, luma luma am pour def lo xam ne cëri président war na fa taxaw mu ko taxaw man tamit lo ne ko wara def nek businessman man ko def waye lima la wax rek man liggéey ak nguur du suma mbir bi mu ben tay do doo dégg mukk ñu ne contrat bi jox ko mustapha ndjay Oli man mako man duma koy jël bugguma ko bi exemple bi eh, amone moy Ndebane clinique bi Covid bi jotee euh, yëg ngeen ne man maa fa demoon defar ko ak suma xaalis laa ko defaree. Mhm, li taxoon ma def ko mooy euh, Covid ku nekk la mun a yóbbu te kër gu nekk dugg na fa. loolu laa séntu woon tamit. ne li nga xam ne amul frontière ku nekk la mun a dal. Mhm. soo juddoo si réew tekkee fi baaxee fi te lu nekk suma wàlla war naa ko def. Mhm. ñu dem ba ma am xaalis bu fa war a génn bu UN ak World Bank war a joxe gaynde fu ñu jaag dañ ko def tenda may den bon doy du nekk lañu wax non da ngaa defuñ tendal rek léeg-léeg may leen doy naa man du may tenda su ma warugal def naa ko su fekkee da nga am tenda ut leen keneen la moo ko doon liggéey soo leen ko essayé ñu liggéey ko man utuma si profit waaye xam nga rek <laughs> gars yi dem tenda ko li ma leen waxoon dafa doublé eh, biñ ko tendee soo mu mujjee ñëwaat ñu dellu si waat si man ñaan ma ne ma daal naa jël rek li ma waxoon defar ko ñu jël ko defar ko si noonu soo si gàttal rek euh, ñu ngee yaakaar si moom euh, ne fi mu nekk ni àddina si neexul euh, nañ dina euh, gën a lu lu fas daw daw ñu ngeen koo caw mm-hmm. nañ gën a taxaw dëkk bi dimbale ndaw yi si ay du saa gën a ndaw doo ko jox liggéey doo ko jël employé ko mm-hmm. waaye dangaa create environment boo xam ne dafa mun a liggéey mm-hmm. te su fekkee ne si jamono Adama Barrow la soo ma laajee li ma li ma li ma advice mooy nañ fonk agriculture dañ ci dugal xaalis. Mm. agriculture. mooy fiicoo àddina si. nit ki li ngaa dundee lu bon bon bon bon bon war ngaa fexe ba dee ko ji ñun suñ suuf si forom mu ngi werta mm. suuf si euh, naka la turaati euh, njiyeef boo fi def mu sax soo sànnee sax soo lekkee tam meloon sax ba pare xoox yi nga sànni ko sax mu sax mm-hmm. ñun waruñoo import yenn yi soo man tey su fekkoon ne toog naa si place boo xam ne place nguur la li ma gën a fonka li moo jublu muy affaire agriculture. Hmm. parce que lii xam nga xam faatu. Hmm. dafa am yeneen yoo xam ne du du métti. soo bàyyee xel Ukraine benn dëkk rek. Hmm. ñu fa am woo buy am diggante mu war Russia. Afrique yëpp di coow. price yëpp di yokku ngir ay Ukraine benn Ukraine dëkk waaye Afrique moo nag. fum nek lolu opportunity la opportunity la pour dëkki afrique Afrique yi ñu duggal sen doole ak sen xaliss ci mbey mi hmm. ba nga xamne liñ daan import ñu ko importati da pare suñu ya, paree ñu ko export am xaliss hmm. So man dal li la gis ne xamne dal su fekke ne lu ñoo wala ñaax nguur gi la pour ñu def ci jamono Adama eh, baro moy nañ dolel mbey ben ñaar ni ñoo jàngal xalé yi nañ ko wëcc <laughs> nañu wécci li ñu oyé di school curriculum du si dara lu moy ñàkk ñaka liggéey parce que so jëlé ñi nga xamné ñoy dugg si school ya xam nga ñaata dugg si school si ci adna hmm, almost four hundred thousand dugg school su dugg school xam nga ñaata ñu ci aga high school lu ñu oyé ba eighteen percent bu nek soko ko do aga sa ñaar fukk nit ñuy aga high school ñi hmm, hmm. ci des fu ñu dugga moo tax di dé ci géej gi soo li ñu war a def mooy nañ dugal xale yi si métier. dëgg la nañ leen jàngalu métier parce que métier du nax borom. ba pare économie bi daal mooy agriculture moo ko yore. ñun li ñu def ni ngaa gis nii yëpp yoru ko. agriculture mooy fii ci Afrique. macha allah agriculture mooy future Africa kon nag Fatou doo lañ ko gisati si media Fatou dafa dem si agriculture. parce que suñu euh, kilifa bu mag bi si biir dëkk bi wax na loolu euh, Moustapha Ndiaye ma bëgg rek euh, ñu dellu tuuti si taam yi ndaw yaa xam naa ne am nga ay xarit yu ñuy ooyee a xam rek ñan nii woon xarit yi Tafa Ndiaye démba. waaw xam nga xarit yaa daan xew mooy dafa des si fi nga nekkoon fi nga jàngee ak fi nga dëkka. Mm-hmm. Uh, soo demee. dem jànga. waaw jànga am na high school am nga primary school ma nekkee high school waaw ñoom Paa Dudu Mbay ñoom uh, Badou Senghor ñoom Moussa Euh, ma nekk high school tamit ñu am fu ñoo campé foo xam ne benn tey ñu ngi faa campé. Hmm. ñu persévérance waaw loolu di dañoo campé ak gannaaw Tobaski loolu lañ dee def. Hmm. Tobaski bi de Korité. Hmm. ñoom Babacar Blaise Diagne. sa papa ñoom ñu ngi xam ne primaire lañ dëkkoon. ñu ñu dëkk ñu persévérance. ñu persévérance ak autoroute ku ñu xam xam ne foofu la foofu suñ vuu. xam nga vuu. mooy mooy campé kaay. soo ba tey dañ fa dee campé. ba tey dañ faa campé ñu bari taay nañ ñu dem tuuti ah, mu ngi nekk ah, koo xam ne turam ñëpp xam nañ ko si biir dëkk bi ah, am na ñoo ci ñu loo non non loolu loolu loolu loolu suma jikko la man loolu ma saf xam dama ko fonka man dama fonka mbokka mm-hmm. suma mbokka dama ko fonka moom ku ma bokkal xam nga loolu mm-hmm. man si li ma mun damaa dox mbokka te eh, dama dama day ee eh, xale yi pour ñu fonk mbokka mbokka alal yàlla la mhm. ni ki ki nga bokkal mhm. bul ko seet si am-am ak si man-man mhm. yàlla leen boole te si deret la soo man loolu ma fonka la te noonu la ma su ma yaree benn la ñaaral bi suma ma xarit démb dama ko fonka parce que dimba mooy ba ba dara du dara. tey Tafa Ndiaye Tafa Ndiaye la rek coow leeg bës beeg mm-hmm. waaw waaye li ëpp mooy sa dimba lan la te man ñooñu laa confortable ñu ngi lay ñëw léegi-léegi fam suma yéen xar yow xam nga naka lañ mën a ooye ma dëkkee af daay mbote waaw mbote mbote mbote xam nga mbote xar waaw parce que ma tuuti ah. ndeysaan yàlla soog sekk na ko yàlla yërëm yàlla soog sekk um, um, suñ bokka la uh, ak ñuñu si woon si lañ bokka tamit mais mm. bi suma yaay di moom yaa ko tax génn àddina ak ah. may yot ñun ñu suma xarit yaay ñun ñëpp dañ daan ñëw añ si su ñëwee waaye ana suma mbotee waay mbotee la maa ooyee te bu fekkee takk naa jabar am naa ay doom ma jógee fa ñëw ñu persévérance mm-hmm. ñu ma ooyee yaxi yaxi waaw yaxi ba tey am na ñu ma ko ooyee lan mooy yaxi mooy yaxi kuñ tuuti yaxi ah, waaw waaw waaw oh, soo yaxi yaxi lañ ma dee ooyee bu mooy suma nickname mm-hmm. loo faa juddoo te doo am nickname te man ko man musuma bañ am nickname waaw waaw am na suma ay jarbaas sax yaxi ma dee ooyee di oh. Masuknya apa? Dia hilang dia oye semua ya. Dia hilang oye. Wow. kuma xam tigi tigi yahi la maa oye ko xam ne nag si wàlli kër la ak mbokk jegeñ jegeñ jegeñ Modou la maa oye taf gi yëpp mooy li xew tey rek uh-huh. waaw ñu oye tafa yu compagnie bi uh-huh. so loolu ma fonka la am naa ay xarit yoo xam ne ku mel ni Assane Dieng uh-huh. Assane suma xarit la xam nga Assane Dieng. waaw ñëpp a maa koo Assane ngoo gis noonu. beneen affaire la waaw. Assane ngoo gis noonu la keneen la. Ah. xam nga dañ naan yéen programme bi ñu def ñun ñaar. Hmm. am na benn time bu ma gënoon a jegeñ. Hmm. dimanche dañ naan dem di naani di naani tàngana fële euh, euh, euh, marché. Hmm. am na ku ñu oyee topp. suñ demaan suñ amee suñu taal rek ñu tànk rek dañoo waxante ñu jaar bicc dox bu àgga foofu leen suñu demee pot tomate yi la ñu ubbi jaxasal ñu ko condensé mil ak mburu yi fa ñu si bota moom la ñu ndéwooyee ah, gannaaw ngay dem be di dem di lekki di lekki ah, dibi ah, marché marché Banjul fofu so asan suma xarit la ba tay ji suma xarit la mhm. su ñewé kër dañu rëy a rëy ba tas bu ma ngol mhm. ma toñé mom no yow problème ñi xamuñ la mhm. yo gëstu rek nga buga té mala ko may getu <laughs> après su dul loolu ñu comme ñoom Padoulou ñoom Ken Jom ñoom Badou Senghor ñoom Moussa Menga ñooñu ñoo bokkoon classe Gambia High School waaye bi ñooñu demee jàngi bon balaa ñoo dem jàngi passé du Njaay moo gë lañ fi mu nekk nii depuis booba euh, fi mu nekk war naa am almost mu ngi ci ay forty years suñ lu nekk ñoo ko def après yàlla boole ñu jikko nag daf ñoo boole ay jikko euh, ñun euh, dañ fonk diine Eh, ni ma bëggee gàmmo lu ko raw la bëggee gàmmo mm. eh, so su nit ñi duñu xam loolu su ñu nga tamit ma nekkee Nigeria mm. bi war a am meeting China war dem fële dama ko fa teg ñëw gàmmo si mm. ñi understand loolu am na suma benn xarit loolu la ma wax mu ne ma yow man daal li ñu mu dem ñu dem ñu def suñu affaire talube yaa xam nga talube yaa talube yaa ndar léegi-léeg si mbeeram la ñu solo waaw parce que ñi nga dem ñu ñu ñu ay taalibe lañ. soo demee dañu laa may fooy war a sangoo soo demee da ndox mi sangu. xam nga am amuñ yooyu si yenn yi nga dem ñu may laay fekk yaa ngi lem sa yëpp nga dem suñ paree nga fomp sa yóbbale sa sarbet dem solu bi baax dem si gàmmu gi waaye su ma fa jógee daf dee mel ni dama sotti suma xol bi ndox mu sedda macha soo demee kaf gi ree gi xam nga soo man si man loolu mooy suma àddina ku ma buggee gàppee nag euh, Moustapha Ndiaye ak ak taf ak liñ ko tooyee daal di nga fa yàgg daal. Mm-hmm. dëgg la nag euh, su am amee ay yenn yi am dinaa ko def. xam nga parce que tamit bugga naa lu baax. Mm-hmm. waaye daal li nga xam ne daal moo nekk suma xool daal euh, dinaa dégg jiw boobu ne ah moom de moom ku wàccee boppam la. Mm-hmm. waaye noonu la ma yàlla bindee. man du ma fàtte démba mënuma fàtte démba. waaw man daal lu ma nit fay. lu ma def lu bon dinaa ko jéem a fàtte ko bëgguma fayu. waaye lu man lu man lu man ni defal lu baax du ma ko mos sa fàtte abadan daay ma waaw su ma la mënee fay la fay lu ko yoon su ko fekkee wut njaboot naa leen ko fay kóllëre gannaaw laa féetee nit ñi nag seen kóllëre moom ko amatuñ ko mhm. su ma yaay eggee rek lu ma xamat naa ko ma naa su ma yaay su ma yaay mhm. wax mhm. su nit ñëwaan xëj na koo xam ne dafa def otherwise ñoo si moom mu jàppee ko def ko yeneen su ma ko nee yaa yow Fat Samba mi nga wax nii xooluma ko yax ca lay seet xam nga loolu mu mooy ne sa maam bi te sa mbokk ku sori koo xam ne amoon na ko moom nekkaatu fi kooku la seet moo tax mu defal la ko yow loolu nag noonu lañu yaree euh, ma gum ko it moo tax kóllëre dafa foor te kóllëre gannaaw laa féetee Euh, kóllëre ginnaaw lay féetee Moustapha Ndiaye a ko wax ngeen dégg tur yu bari ñu ko ko daan ooye euh, ba léegi tamit ñu koy ooyee euh, ñu ne li nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën see ñaaw tey kuy fàtte démb rek baaxoo bu leen di wàcc seen ànda ànda boo dem rek nga fekk borom toog Moustapha Ndiaye dafa toog si àndaam loo ko ba léegi tey si la moo doon Moustapha Ndiaye tey yoo leen féetee si suñ lum fi def mm-hmm. ma bëggoon a xam after Tafa Ndiaye kan nga fa ne moom leen war a am si nga bëgg a xam nga xam nga li si ëppal li yëngatu si euh, xale yi la. Mm. Euh, man fi mu nekk xale yi la gën a fonk ñoom la yéen lay jëm a dooleel pour ngeen taxaw parce que àddina àddina euh, yëpp li ñoo yee la da nga daw def sa walla jox keneen mu def wàllam. so suma focus li ëppal li may xalaat yëpp léegi ndaw yi naka leen taxawoo pour ñu dem si kaw lañ am na ñoo xam ne nag ñemeñuñ télé. Mm. loolu loolu mais yàlla la am na ñoo xam ne comme man man ñemee naa ko man la ma gëm ne li ma def dama koo wax. waaw amoo ci problème. Mm. am na ñoo xam ne dañoo nëbbu. ñu bari nëbbutukat lañ loolu lañ gëm. waaye am na waaw na boobu daal dama ko leb faatu ma xalaat ko la ko wax. <laughs> waaw waaw même ma xalaat naa la. non mais ma rek mais ma ma la koo xam ne rek ma tàngal la koo xam ne soo demee rek. Ah. Ah, parce que li si ëpp si jamono ay xaleel ñoo fi nekk ma seet mag ñoo xam ne. ñu bari xamuñu leen waaye am na luñ fi def. Mm-hmm. waaw loolu moo gën a loolu ma dama la ko ñaan boobu ñaan naa la ko. ma may ko kon nag ma ko ko may Ndiaye Diobéni Ndiaye mi ko ko kon nag eh, defee noonu la moo demee eh, su ko defee Tafa Ndiaye dañoo dem outside ak yow eh, sa daily routine lu leen bëgg am. seeni jogo koddu Ndiaye ma jogo koddu yaay ja na seeni jogo koddu. njaay ma jogob kodd yaay ja baax na seeni jogob kodd njaay ma jogob kodd liggéey naañu doom seeni jogob kodd njaay ma jogob kodd yaay ja liggéey na seeni jogob kodd njaay ma jogob kodd yaay ja baax na seeni jogob kodd njaay ma jogob kodd seeni jogob kodd njaay ma jogob kodd seeni cukkar mbaay mbas neene jigéen ak jogoy neene jigéen ma sàmbay neene jigéen waali buri faan ma sëriñ mi ci kunti seeni mi ci bani ñoxo baayande mi ci tëmb gi liggéey daañu doom seeni jogo koddo njaama jogo koddu yaay jabaang na seeni jogo koddo njaama jogo koddu Moustapha Njaay sa yaay baax na seeni jogo koddu alaaji Moustapha Njaay biram wula jaañ ak Fatma wula jaañ lel fleur wula jaañ yaaya ndaw mu demba seen Ismaila mooy sa baay Useen nooy sa maam Seri jogo kodo njaama jogo kodo ya baama seeni jogo koddo seeni cukkar mbaay fii nii mooy fi suñ noos bi ay ay jief yu bari fi lañ ko commencé comme ngeen gis nak te li ëpp yëpp ay jigen lañ jël gis ngeen ñoo nekk di liggéey ni jigen ñi ni ñop diggante gunjuur ba Birkama ay jigéen ñu nangoo liggéey nag comme suma interview maa ngeen wax rek gars yi jigéen ñi ni ñu nangoo liggéey gis ngeen fii yëpp ñoo yore fii nii parce que liñ soxla si affaire yi affaire yi affaire yi njiyeef bari na bari goo xam ne fu ñu ñëkkate koo toppatoo fii nii mooy suñ ñoos yi parce que fii li ñu ooyee Green City la gis nga fiñ ñu def nii mooy mbaar bi ngay gis nii ñi ñoy taf ci digal ci ñi nga na gis ni ci ah, bo ci tokala waaw waaw ah. so gisé gaay ci sundur bi gaay ñëwé dañu fé gaay bi sundur oh so lek so la xamé so gis nga yi moy yi moy gaay ni ñoo def yëp gis nga dañu topato suñ yi ni yëp ama yëp nga gis ni balañ ko ji gis nga nga comme par exemple fi ni gis nga gis nga guy yele tir yele pam tir yi nga gis ni najira lañ ko jëlé indi ko you know ay thousands ci thousands lañu indi amna yo xamne ñu lañ jëlé ay Trinidad and Tobago amna yo xamne ay Kenya lañu jëlé fo xamne rek ay njiyef doxé na fa rek dañ ko indi topato ko fi bam deuguer ñu dol ko ci bir city bi so city bi su paré dal yépp dafa werta comme ñoy green city rek mu nga gis ñu préparer fi dañu topato yépp suñu paré ñu transplant ko moy force hal bi ñëka ñor tough city mm-hmm. xam nga ñu nga def ay trials fini ay kasi bo dokko su ko defé ñu bokasi ñu mosko waaw waaw ah est-ce que biir fa ponkal sax non nah, la di non di sede waaw pop pop oh bi añ la kay raxas gaaw raxasal du bi moom ku si barkal wul gisuma la kay leen waay xumbate dagan xumbate dagan waay suma gaay yi xumbate dagan ay waleen waay xumbate dagan ah suma gaay du non de dina gis ni waaw pop pop pop pop te liggéey lañ mu nak 7:30 8 o'clock ñu ngi fi buñu dee wàcce be ngoon man boy si waxuma oh, si ñoom dara sama gaay kontaan nañ ci acca nok so ngay ko wa waa Tapsity man Fana Si maa leen a nuyu di leen jërëjëfal waaw te ñaanal yàlla Moustapha Ndiaye yàlla may ko fan bu gudd bu ànd xaatima amiin waay yéen fu ma gëstu la gis leen waaw te lu ma gën a kontaan loo ba tax ma jël lii dëkk bi daal amatut daal liggéey boo xam ne ni dina sedda sa xol. waaw may dox ba dem taf siti fekk fa Keba Jaañ mu welcome ma mm-hmm. ma fekk fi xale yu baax mm-hmm. yu am yar yu am discipline si mag waaw ñu responsabilité yëpp ñu suma responsabilité yëpp ñoo ko gaadu ma ñëw nag gis taf siti moom mu nge feesal poosi ci lu nekk nag maa la ko wax waaw ma ñëw nag gisatuma fii béyukaay ah. yëpp a doon ne kër ah. garab yi daanu nañ picca naw, naaw hmm. rab yi gàddaay ndeysaan jërëjëf taf siti man dama kontaan sax tey waxal yow jigéen ñu bari dañoo xëy di daan seen doole parce que jigéen ñi léegi amatuñ jot pour toog garam place lu dul rawatina waa taf siti ñun daal liggéey taf siti ba taf siti kontaan ñun loolu lañ am soxla kon nag jërëjëf taf siti soxna si balaa ngay dem rek ma bëggoon xam ndax taf euh, tey luñ ko seet si moo tax taf mu mel ni ak yéen dede kii su ñëwee man sax daf ma jox suma on tour ah. su egsee fi rek mu ne ma si malik si malik ma kontaan ma xam na suba waxee loolu de no dama tiwaawoon dama de kontaan ci mom da suma julle sa dama ko de ñaanal an ko ñaanal yalla fan bu gudda ak njabootam di ko ñaanal mboolem jami yalla yi nak macha liggey jotna Gambia amna bopam bopam liggey liggéey jot naa Gambia am na boppam boppam kay leen ñu dem liggéey taf siti mu kontaan ndeysaan taf siti mi moom nit ku baax la dafa am discipline si nit ñi ah, su ñëwee daf dee wàccee boppam ah. maasee ñun amna suñu mo len mak way mag waaye su ñëwee daf dé émo ak ñom wan len né len man doomi adama rek doomi adama la rek ma sha allah té ma ngay gërëm nak suma doom bi du ma ko fàtte kay ba jaay waaw mo mooy suma fos général mo général de moom mooy fos général na ngeen lekk ak moom waaw aywa aywa aywa parce que fos xarit tubaski de moom aywa donc bismillah ah na xonxa de ah ajale na Nos vamos ver. Wow. Wow. wow. wow. ¡Eh! ¡Eh! aku tunggu. Acum tu bine na. Jela mesera suin ga ga gambe talent TV. Ngel mo sin bi boy taf hal. Taf melo. Taf melo ngi ni way. Taf gambe talent. Ha? Kamera ya ba mo ga mo ba ja jela. Okay. Bueno. waaw yow kale ñu yu bare bare bare hmm. kontaan ta ba kele ñin do ko gunjur ja wala birikama sifo mo useless ta mo mo somandani wulta ikane kana do ko wala nan nin karo fata ye ko do ken do soto jobete yata ike ba ma ma koy no kontanta bakele mo jama kabir mba do ko start la je ne do la life je ba bal faale bor say mo be le change ta ja mo be la life be bete yata bilem kontanta bakele na boss mba duwa la alma harje firina so len ko gisse non len de fi non len de kontan suñ ko gisse dañ de kontan torof so gisse yena sa dañ de fane suñ mam la sa ñu ngi wax ara ah, ah, bojo bojo yi sem problème raisonnement wayo lu ko mamale raisonnement de <laughs> bro la shan bro bro bro ana mboje mboje yi suñ ko gisé non lañ dé kontaan bés nek nekk suñ da fay ñu ak happiness Oh, bi neex na day yépp. day yépp nañ ko def Bo bu ebe la suñ nekk daal musu nekk daal taf ébé, taf hal taf lélé. yëpp am nañ kala ko won do taf city mi calmini on no bété wona séda. min belti e garal moɗon ngal ɗo hewɓe no nani top city heɓe jiɗi arde top city a arɓe ɓe de looɓaani arɓe ɓe no mbeltino bete wona seeɗa miɗen ñaago taf siti yo allah wat heen cellal e balɗe yo allah firtu arsukaji dumba musibbaji garɗo e jooɗiɗo yo ya allah wanne waare amin amin amin amin ya jërëjëf eh, so bëggee dox mun nga dox nga wër fi yëpp te do jaar si kaw tali bi après tamit sooy dawal cycle mun nga dawal ni ak lañu dem li mo bi nii Mercedes Benz la bii nii Bentley la seeral bi ci bëgg a duga Bentley bi ngaa duga fi la éducation centre bi nekk lépp éducation la université bi boor bi la nekké nga jigen ñaa ngi liggéey ni la ñoo liggéey Afrique Garden bi yëpp ñoo après boor bi nga gis nii euh, sa ndeyjoor foofu la high school bi di nekk ñu ngi jublu si nag third roundabout or di second roundabout euh, second roundabout soo ko passé nag ñu nekk ñu nga gis nii fi mooy benn si nga fii loo gis ñu sampa fii rek jar na loo ñu commencé rek jar na ba pare soo loolu la nekk li liggéey fi mu seeni jogo koddu njaame jogo koddu Ya aja bang seeni jogob koddooy ya ma ya aja yaa jabar na seeni jogob koddu ya ma jogob koddu liggéey ndaañum doom seeni jogob koddu njaay ma jogob koddu ya aja liggéey na seeni jogob koddu waaw compagnie bi ni ma ko gisee compagnie bu baax la tetap City compagnie bu nga xam ne day dalal ay maçon yu qualité ak libérage lépp mu ngi fi quoi te nitu jàmm lañ fi fekk te compagnie bi mooy loolu quoi. Tafa Ndiaye su ñëwee fii naka la di mel si yéen. moom dafa nekk nit ku nga xam ne ku direct la bu ñëwee liggéey rek lay santaane ci biir liggéey boobu nekk da nga yaakaar dafa tàng mais du foofu parce que compagnie moo doxee noonu bàyyi dañoo bàyyi suñuy njaboot bàyyi suñu famille ñëw fii pour daan doole mm-hmm. kon bu ñu waxee daan doole moom dafa nekk ni koo xam dafa direct quoi bu ñëwee rek au travail lay wax. Safa moom kay ñu luñ ko gisee suñ papa la parce que ñun fii lañ yaroo ninety ninety two la commencé liggéey bi fii. li nga gis nii yëpp ñu ngi ko commencé euh, janvier bi lañ ko commencé soo juróom benni weer rek la fi moo fi nekk nii gis nga kër yi yëpp dañoo jéem daal fële octobre daal su neexee yàlla nañ pare ah ku pare pour dëkk si mun ngaa ñëw dëkk si ñi nga xam ne fay nañ. kër yëpp macha allah jar nañ ba pare euh, ba ka dañoo liggéey ak ay banque euh, ñu mel ni ay Trust Bank ay euh, Guaranty Trust Bank GTB um, ak ak ak ak ak Ecobank ñun ñoo da joxe ñooy leble xaalis bi suñ joxee xaalis bi rek soo fekkee ne def nga seen condition yi nga mutale ko rek su ko defee ñoom ñu ñoom ñu fay ñu ñu liggéeyal la moo tax nga kër yëpp jar nañ ñi ba pare lii daal moom moo nekk fii si benn estate incha allah su neexee yàlla bu ko def filee at bi suy jeex daal nit ñi door fi dëkk daal ah, di enjoy place bi ni mel lu mel ni sa garden la nekk ak fooy park sa moto soo paakee sa moto pare nga si la fi la fii nii bi bi two bedroom la comme ni nga ko gis ni kër yi kër yi bu si nekk dafa am tur oh. ah, li tax ñu am tur mooy gis nga yi nga gis ni ah, suma xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo si management bi mm-hmm. ñoom la tuddee ku si nekk oh. mooy di nga gis fii nii yëpp ku si nekk dañ la tuddee tur nga comme Binta binta ak kenal ci sales lady yi so ker gi ni binta la tuda so so ñëw nga ne binta la bëgg jinda xam nga bu nekk dañ ko identity amna Aisha waaye aussi innovation rek boy wala wax rek eh, adina mom da nga isi da innovation da Helat. nga bi bi haja la tuda mom haja so dress bi nga gis ni fim nekk haja la tuda yeb ya, jigen la waw ñom la faral man ma yena ya anda ah, fini west africa ñop ñu fi Mura ne la woon fi gars yi dëkk sax dañu leen simpal fu parce que man di dem Nigeria four hundred Gambien ak Sénégal laa fa yóbbu four hundred ah. so ñu am lulu mooy li ma laa wax ne la africa mooy suma li gis ba pare africa loolu moo fi nekk léegi Afrique amatul boundary ak frontière bu fekkee ne ñun ñooy Gambie ne loolu amatul fenn foo dem daal li nga mun a liggéey loolu lañ la gisee waaw so daal nañ ku nekk utal sa métier mun li def foo dem kenn mu ëpp la fa parce que ni ma la african continental free trade area dafa isi africa as que nous avons pare ECOWAS nous kan avons di right pour liggéey fa soo demee Nigeria fi mu nekk kenn you have a right dengan am right fa protocole yu gi sign loo xam ne mënuñ la même chose fii tam soo fi ñëwee sénégalais yi nga gis ak nigérian yi ñi liggéey fi yop, kenn mënu leen ko ayé. Sen right la parce que protocole buñ sign la ba paré. lu xalé wara bay a hal la non ba que ma ne affaire yi bu diis la na poche bi diis rek gis poche bi diisee coow am. loolu wara encourage rek suñu empower moy tax affaire xale yi ñu wara na bayyi xel li ñu leen a parce que su fekké da nga jangal xale bi lo xamné mënu ko jëriñoo su magé ya ko tooñ nañ jangal xale yi lo xamné ne su ñoo jeexal ñu mënu ko jëriñoo liggéey ko mm-hmm. wa mu leen la isil sen sen li ñu war a liggéey jot na Gambia amna Bopam. Bopam. liggéey jot na Gambia amna Bopam Bopam. kay leen ñu dem liggéey taf siti mu kontaan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 Fatoumata Jammeh lay wuyoo. ma nekk suñ toolbox yi fi mu ko dee dencee so dama nekk di jël kële pour ma mën dem si oto bu ma nekk nii right now. ok idea bi moo nekk first thing bi ma njëkk xalaat because dama ni koo xam ne comme yëfi challenge dafa ma neex. yàlla def ma wàcc school. so ma dégg advertisement ne benn compagnie ñu ngi advertise comme jigéen daal den jigéen fii daal so ma ne waaw. Ulutah duma apply hara ma apply so buma apply lol jero wiksa gay oma jusum sitele yo yan don def liggey fita yo fita nga kom so kenen ki daf ma wane ne man suma tija mune, suma mom su su su suma waacee lan la buga a suma dom ne ko man fiita laay nekk mu kom ko da nga sa suma e. nge konta baraka ba baraka ba mun be kero men kerim babu wolom aka kenu nyameng ni ko aka kenu nyameng nunto adol be nyaadile parce que niya moy ko aɗo nen cosano ka hada maddigol e signifa itemu jumale ite bota jumalle bala wol fanal bota jumalle fanal bala ñina lan dekil sa ada a sa cosan ake ko nun ñaami num nan ame demma babuy ko niye dinnigo jiibe e ko a kalon ko yemmen fo xama sa ada sa cosan moo tax gambian taren tv ak ibu ak babu ñu toog ñu ne ñu fokk yuddu na sun asasi a sun cosan ɗum to alfal kela dimbayali ke kuluno ñaadile ke kulu ñaadile fof ɗum terolon ban fo ɗum i ka domorol le di la ban fo i ka mun fel le di la ñin programme le be wo be seeneyandi la kon kene ku nega boo bukee xam sa adresse cosan fu nga bàyyee ko samma fu nga bàyyee ko nun to alfalu ila sunkurundiŋol i kee pare ñaadi le ila dum feŋol fanal be ñaadi le ko mun dum feŋ siifal le fanal dum ñin programme le fanan be wo yitandi la nenanani ko watti sa annde anni woden nga feggo fofam tel dindi mankaje kebal ka julo siti yiro balay ka fo finja julo gay koye ɓe siring eɓe kumo jiijala kumol bitayɓe tarikol fola dindigol ye lu doon am dëmba lu tax amatul tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ake kennu ñaameng aada ak cosaan ake kennu ñaameng toppa lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom-ñaari waxtu fan la moo amee si Gambian Talents TV Ibou la ak Babou ku ne am na lu di daanaan loo xam ne kenn mënut laa ci raw bés ba ko xàmmee la la lele demal ma xàmme ci loo taxaw am na lu yàgg ne law ci yow yow ba kon kenn du la daane affaire de ndaanaan ndaanaan gëm taaleen gën njaay Danta Len TV yéen ñay ndaana you know the deal this is your boy Bai Barhama I'm watching Gambian Talent TV bés bu nekk ay naa miin keep watching these guys ñooy ndaanaan certified ndaanaan that's what it is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 kansu mun dinka fankan ka hanjawiya se fankanta ye siɲolu kanta ɲin nafa fo mu fankanto le ti alungata ɗongidomu adama vaksinu nan koronalu amla fagarogen fajo ajalel ñuden vaksinu moy leñoy a lena jola

ta ta nhìn ngang người, bengota nyine nangay bengota wala yandandi kamma koy kan imi imme yetto yemmo lekki kingari jaha na gorko ma debbo imme joni joni dun dandai jakos manjago tofi ya kaje jibin ya ka kabur. buburu. Aliyu Badara, Kuni am nga waru gal jili jarul tobi xaar. Vaccine am na jógal jëli ko wow ala suñu Sambi susu mandinka. Ami vaccinota ni mo be matantul mankana. Ali nganji jambe ya. Tyson bi ñëw na ci suñu réew ñum jëli war nañoo ku ko jëlu doo am visa ngir dugg ci benn réew ndax dañoo bañ corona tasaaroo. kaay leen ñu jëli ko vaccine bi ñu doon xaar kaay leen ñu jëli vaksin biru gaañe lor am na ñu ne nit ñe du dëgg de garab lor ami askan wi